ci daal alimul xabir jox ko tur booba nag am na ñu wax ne maam Thierno mi ngi woon Touba di defaraat kër gi sëriñ bi joxoon digal muy kër Touba gi fa la bàyyi koo ñëw jox ko tur bi ni ko ko sëriñ bi digale woon ci anam gu day waar goo xam ne ñu bari dégg nañ ko wax ne sëriñ bi da ko waxoon ne ko diggante bi koo fi dajeel ñu jégal ko ba tax maam Thierno ci yërmaande ja fu mu doon romb ay nit ne day taxaw ñëpp génn gis ko mu doon a jàll. te nga dëngal sa da nga da nga dëngal yoon dem ak dikk ndax koo fi tasel bi ngay dem ak bi nga dikk suñ bon na ko jéggal kon nag la yor da koy ndal kon sëñ bi du ko fag bañ ko fàggul mu doon ñëw kooku nag mooy sëñ Abdou Khadir loolu nag yàlla defal ci sëñ Abdou Khadir ci gan ak jamonoom loo xam ne lu néew lañ koy dégg ci gan ak jamono xanaa gu mel ni sayyidul wujud sallallahu alayhi wa sallam ni yonent yàlla Muhammad gane jamono nga xam ne dañuy wax ne bés booba ñi doonoon ay kàccoor yu mag ca màkk te bég ci gane jamono Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sax yàlla dana leen woyafal mbugal yowmal xiyaam beneen ba ca des mooy gane jamono gu way juróom bu tedd wa nga xam ne tax na wali gën a mag ci awliya yi nekkoon ci Sénégal dikk ba Mbàkke ne leen kiy wuutu rasulullah di boroom jamono fii lay gën a jamono su juddoo Mbàkke barke dana wàcc ci Mbàkke te dootu fi jóg day mel ni gan ak jamono googu loolu rek lañ ko mën a dëppaleel muy gan ak jamono sëriñ Abdul Xaadir Mbàkke ba tax na yàlla def ca loo xam ne lu rëy la te mooy wax Seydina Jibril alayhi ne ko waxal ma xaadimu rasul ne ko na wax ne dikk am naa ci moom mbégte defal naa ko ki koy tuddi di ko jox aw turam dem nga ba ba muy dikk ku ko teg bët loolu ku ne xam na ne ci ci ci tuut tànk ba nga xam ne mooy leer ga gane ca la ko yàlla def yërmande yàlla dafa tax ginnaaw du baax nit gane jamono daal di waaxu dugg ci biir nit ñi ñu di ko gis waaye yàlla far def daraja ci ka nga xam ne moo koy joxi mu jël loola jël mbubb mooma summi ko solal ko ko muy xil atu tasrif ku jàng tasawuf xam loolu day fay ko solal ko Seydina Ibrahim muy Ibrahima Mbacke Seydina Ibrahim muy maam Cerno ne ko sëriñ bi ne ko booye boo yeexal say tànk ndax ba ba ngay dem ba ba ngay dellu si ku la fi teg bët wala koo fi teg bët suñu borom jégal na ko loola sëriñ Tuubaa da ko jottali waaye yàlla mi moom jamono moom jaam moo ko wax te yàlla it boole gan gi dikk ci ganam yi gën a tedd fi moom boole addina moom fële ñu naa daarul alim moom la wala woowe ndaam Cheikh Abdourahman ma ngi fa woon muy ñetti fan ciw tam xarit sëriñ bu mag bii na bëreet ni nañ ma wool samab xarit am naa fi gan gu doy kiimaan nañu ma wool Cerno mu ñëw ma wax ko lool xew fenn fudul fii Cerno ñëw lii la ko yónni daa di ñaan danaa la yónni nga tudd gan gi sa yoon wii na gudd dajeel duñ ko tudd yamal xiyaam du gis safaan Abdul Xaadir Jiib ay wax am na ci kuñ ko tudde am ñu jàpp ne eh, Cheikh Abdul Xaadir Jilaani la ndax ci wàllu ruux seqoon nag sëriñ bi lu tax loolu mën a nekk te wax nañ ne it daan na feeñu sëriñ bi di ko di sàkku ci moom aw turandoo am ñu jàpp ne Cheikh Abdul taw maam Balla la ko tuddee ndax moom it euh, seq nañ lu tax ñu mën ko koo tuddee am ñu jàppit nag ne euh, Abdul Qadir la tur la ci turu yonent bi sallallahu alayhi niki yeneen turi yi nga xam ne wér na ne mënuñoo wax ne kenn lañ ko tuddee loolu nag laa jàpp ne moo gën a dëgër sax nag niki Abdullahi Abdurahman yi amoon nga xam ne jaamu yàlla daal la te loolu bokk ci tur yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. bu mu nekkee doomi Cheikh Ahmadul Xadim te Cheikh Ahmadul Xadim moomu di koo xam ne kii danañu wax tuuti ci li nga xam ne. moom lañu ñu jiitu doon xamal ci moom muy jëmm joo xam ne jii dafa am lu mu waxal boppam am lu mu wax ci ñoom lu ñu wax ci moom ba mu waxalee boppam ne mallaka nii duniyaa wa uxra samadu maa indahu mu muhammadu waxal boppam ne laanat liyal quluubu wal abdaanu tuhibbuni albiidaanu wassuudaanu zalika fadlullahi yuutihi alladi yashaau wa qaala li qulbi lusi ay waajur doon ñoo xam ne danañ ci ñëw ci ci mbaax ku ku foofa nga meloon neneen mooy jaaxal nit ñi waaye nga baax du jaaxal kenn ndax moom xam nañu Sëriñ Tuubaa mooy waajuram doy na ci misaal ci baax ak njub waaye soxna Aminata Bousso mii way juróom bu jigéen nit Mbàkke ak Mbusoobe ñoo ko seq te Mbusoobe ak Mbàkke seen cosaan xam-xam la ak diine ak njub fu ñu mas a nekk loolu lañ fa nekk kuñ mas di jaxasoo loolu la ñuy jaxasoo yow bawal ak jolof gi ñu nekk da kuñ fi woon Fuuta lañ jóge woon waaye ñëw bawal ak mbaaxum njub moo tax ñu am focc waaye ñu fa am dañuy wax ne maami Eh, mbàkke mbàkke yi bi mu wàccee jógee Fuuta ñëw mbaax gañ gisoon ci moom moo tax ñu yaatal ko fa ba mu am fa buur ba may ko soxna loola moo fa laal ba moom maanaam feeñ ca loola di koo xam ne tey mën nañu wax ne bu ñuy lim Sénégal kër yi mu gën a mag mooy seen maam waaye mbuso bi it noonu la loolu lañ fa indi woon ba sëñ Moussa Ka ci benn bayta mi ngi wax ne diine gore leen te jubóog lam toora diine ak gore kuñ ma sa jotale rek yooyu tax ñu jote yow bëgg sàmm seen diine ak seen ngor fu mel noonu nag ku ñu meñ ñi mu mel ni nga mel du jaaxal ko xam seen bu xaadir nag ñoo ñoo ko meñ li lu bari la sëriñ bay way juram waaye maama ma nijaayama ana yu bari sëtub maam Balla sëtub maam Mor maam maam maam Ahmadou Soxna Boussa sëtub maam Ibrahima Awa ña nga ci askan bi moom nag bi mu ganee jamono ñëpp xam nañ ne sëriñ bi bég mbam ci defoon waaye fam ko teg ak ndigal yam ca joxe woon te mooy ci barab booba joxe ndigal ci ñuy jàngal ko xamal ko loola yàlla dimbali na ko ci ndimbal loo xam ne ñi ñi nekk jamono ñun suñ joonu tey ñëpp xam nañ ne sëñ Tuubaa yàlla Sëñ Abdul Xaadir yàlla dimbali na ko defal ko ci xam-xam loo xam ne ak alxuraan Euh, néewaana ku ko yàlla defal ndax am na loo xam ne ak may la mokkal alquran ñépp mën nañ koo def waaye xiraa te mooy njànginu alquran ak xeetu xeetu mokkalinuk alquran ak dégg gi ko yàlla defaloon ci alquran wuutewul ak dégg gi Abdullah ibnu Abbas amoon ci alquran wuutewul ak dégg gi yàlla defaloon sidna Omar ibnul Xataab ba mujj yàlla may ko mu nekk muhaddas moom Cheikh Abdou Khadir ndaam gi la nekkoon ndax way juróom soxna Aminata Bousso sëriñ bi moo ko fi yebaloon mu nekk fi bi mu demee ba mata daal jàng sëriñ bi daal yónnee ñu indi ko njaareem sëriñ bi bindal ko ci alluwaam am ñu wax sax ne moo ko dalal boole ko maam xawa bu sa mu delloo si ko ndaam ci sëriñ Abdourahman sëriñ ndaam di ko jàngal ba te loolu mi ngi amoon xam nañ ne bi muy dal jàng ci weeru gàmmu la mille trois cent quarante du sori novembre mille ci lañ ko indi sëriñ bi ñaanal ko mu ñëw ndaam tàmbali jàng alxuraan bi fii sëriñ bi ñibbisee Tuubaa nag ci la ko sëriñ Mbàkke bu sa jëlee ndaam yóbbu gende boole ko nijaayam ji ñuy wax sëriñ Ibrahim Njaay foofu la àggalee alxuraanam bind kaamil ci nam gën a mate sëriñ Mbàkke nag tàmbali di ko jàngal xam-xam ab diir boole kook moom sëriñ Xasan nga xam ne lépp ci téere yu mag yi sëriñ Xasan moo ko jàngal am na fi ab diir nag mu dem njaaree mit jàng aslëf ci sëriñ Muhammad dem waaye yàggu fa mu dee si war gédé waaye moom it di Cheikh Abdul Xaadir sun boroom xaasal ko ci teel a am al istiqaamatu qad ataahu llahu alxukma walhadiya sabiyan wa huwa lam yukallaf bihi dafa jóg rek sama borom teg ko ci yoon wi mu ne nocc suñ borom sol ko xam-xam ba mu fees del mu jóge noonee mu jóge rek nga xam ne ña ko xamoon ci yoo xam ne ati sayir dafa ndawe ak ñi ko xam ci bi bejjaaw nekkee ci boppam dara dolli ko ci ci wàllu jub ak melo bu baax dafa am jaam ñoo xam ne yàlla du boyalul seeni cër daf leen tënk ci lim bëgg Sëriñ Abdul Xaadir yàlla daf ko boole ci jaam ñi nga xam ne xayyada aadaahum fi ma yurdihi tiilata xayaatihim tënk na seen làmmiñ seeni cër ci luy gërëm loo yàlla seeni guddi ak seeni bëccëg ba nuy delluwaat ci seen borom loola doy na sëkk ak may loola nag yaakaar naa ne ku xam ci ni ñuy waxee ci diine mooy tudd listixaama ràññi ko ci ayu bare bari yooyu mu ràññi ko nag la ci gën a fés mooy baat bu siiw boo xam ne daan na ko faral di wax lu bari nga xam ne mësta jëflante ñaare wala waxtaan ak mbooloo mi te bay bay loowu leen ko xel mooy li ñu wax listixaamatu listixaam mooy jub xam na ko daan wax da ngeen fonk listixaamatu listixaamatu nag mooy jub listixaamatu mooy diine sëriñ bu mag bi yooyu juróom nee na wa axbaru bi anna al istiqaama nihayatu salaaxi wal li ñuy wax baax bu baax yam mi ngi ci am istiqaama karaama ba karaama yem ba jeex mi ngi ci am istiqaama te wàccoo ko benn yoon lu neex a firi la dañuy wax ne tegu ci yoon bañ ko wàcc benn yoon mooy karaama gi gën a rëy ci karaama gaa yu baax yi ndax lan adduna ak saytaane dañoo bari doole. kon listixaama mooy li gën a am solo ci adduna ndax moom ngay wax ihdina siraatal mustaqima moom rek la yàlla bëgg julli bi di ko répété ci ràkk bu ne ihdina siraatal mustaqima yàlla yàlla nag ma teg ci siraatal mustaqima te dégg ngeen li yàlla wax li sëñ Tuubaa wax ne wa axbaro bi an listixaama nihaayatu salaahi wal karaama nee na ki tege ci yoon jub kocc nee na bu ñuy waxi karaama kookaa am ndax la nit ña di jàdde ci siraatu mustaqim di nekk ci leneen lu leen sunu borom dénkut ak di woote woo moom léppam yàlla defal na ko loo xam ne su ko wane woon jaam ñu topp ko du ko woote woo du ko def dara waaye nag yàlla dana ko defal loo xam ne du ko defal ñeneen yi ci des man ngay dund ci àdduna gàllankoor yi bari yi mucc ci moo jafe ku fexe ba mucc ci rek mbërëm moo tax benn xakim waxoon ne euh, du du du du lu yéeme bul yéem mukk ki daanu ki alak lu ko alak yi alake ci àdduna daa fi bari ci jër yéem koy mooy ki fexe ba mucc ci yooyu la taajaban min haalikin kayfa hawa bal faajaban min saalimin kayfa naja Cheikh Abdou Khadir nag moo tax listixaamatu mu jëlan ko kon mooy diine fi la mbaax yam feeñal karaama bi ci gën a màgg mooy nga tegu ci mu siraatal mustaqim musu ko wàcc bi nga duggee adduna bi nga ko génnee muy karaama gën a mag ci karaama gu waaj baax def moom nag loolu bokk na ci li mu woon. ni mu ko daan firi nga xam ne istiqaama daa wax ne jub moom nit ñu bari mën nañoo jub ab saa bàyyi waaye istiqaama moom dangay sax ci jub sax ci jub moom. taxoon na moom ñu adressé ko moom xam ne ni mu doon diglee istiqaama noonu la ko doon doxe moom moom moom euh, ku ne xam na ko ci loolu waa kër sëñ moom ñëpp a yem ci wet googu sax ci jub lañ def waaye nag dafa bëggoon ñëpp maas ci loolu ndax jub euh, mënees na ko waaye jub tey bu subaa nga dënk itam jëriñu dara jub moom li ci baax euh, nga sax ci dàkk la ko taxoon gën koo mën nag gannaaw bu mm, maay ak suñu boroom nag mooy lu muy lu mën lay def ni mu ko mënee la koy defee tey doontoon yaafus boo xam ne tuuti lay def lum saxal lu ne da koy saxal bu xëyee bu xëyee ñi nga xam ne gone yu tuuti yi nga xam ne dañuy xëy xëy si eh, eh, di di siyaare si gone yu tuuti yi lay njëkkee ci moom la ñu kafe boo naan kafe képp boo bëggee naanee càmmooñ da lay wax jëlee sa ndeyjoor boo bëggee fa mburu mu eh, lekkee ko càmmooñ da lay wax fabal sa ndeyjoor boo toogee da lay wax ni ngay toogee. listixaamatu boobu nag ñu bàyyi xel ne njariñi àdduna ak àllaaxira ci nekk borom bi nee na wax law istaqaamu ala tariqati la asqaynaahum maan gadaqa nit ñi buñ tegoon ci yoon ndox dana wàcc ba doy sëkk kenn du jàmbat Omar. kon mooy xolub diine moo taxoon mu yemale woon ci daanaka dénkaanam doon ko dund daan ci woo nit ñi waaye nag doon ko dund. istixaara moom kenn bëggoon moom dafa dafa dafa dafa réglé woon mbiram moom man nga mën nga nekk ci Ndakaaru heure bu jot nga xam heure bi nii sëñ bi boo dee ma nga ci nangam te dara du ko soppi. am kon kon kon kon kon kon nekkal la dafa dafa nos mbiram. ku ne xam na ne sëñ Abdou Khadre géej la woon ci loolu ba àgg ci ak tegem ci siraatul mustaqim te mooy lim fonkoon daan ko woote woo daan ko dugal ci biir yi ñaanam ba noppi dugal doon ko boole ci ndigalam ndax bi yàlla dogalee mu nekk seexul xaddim wutu ko ci place bi yaakaar naa ne na ngeen am listixaama la wax tey mu daaranteeg ñi yàlla teg ci seen kanam xool ñaari baat yooyu tege ci siraatul mustaqim mooy bañ a ëppal bañ a yées. istixaama bi mu daan digle moom la dund ba ni mu fi jógee moom la def ci njabootam itam ku mu yarit moom la def ci yow mépp mbir mu muy jëf nag ko sa alayhi wa sallam daan jëfe ni la koy jëfee ci diggante wax ak jëf. sëriñ Abdul Xaadir ku dund listixaamatu listixaamatu nag am na fu ko sëriñ bi leerle mooy wala takun mufarritan aw mufrita bal istaqim fi sunnatin wa aqsita mooy bañ a ëpp bañ a yées. tegu ci digg bi doomu aadama dana tegu ci yoon saa bu jengee ci jëm genn wet bu ëpp rek wàcc na duñ ko jàppeeti ku jubal kon istiqaamatu mooy jubal dañu wàcc yoon bi loolu la yàlla di doyee jaam ñi xam nga dañuy wax ci mbir ci àdduna yépp euh, ki mat li mu doon ki mat li doon mooy bu néew néew rek am na bis jamono yoo xam eh, yooyu téléphone yi wëndeel door xew dafa génn ci dafa ci néeg bi toll tolloog bi ci bunt bi fekk fa saal bi kenn néew fi mu gën yëm jàkka ja téléphone bi ne kar mu ne yëkkati ko mu ne ko ana kooku mu ne ko mu ne de daanaka képp bañ julli jee ñëw mu mu ne seet leen doon foote ba xam dem na am déet mu soxla ci wax ak gouverneur yoroon càkk jeeg ko ñor daal moom xamal naa ko ci mbiram lu wax bari bari bu ñu xasee noddu allahu akbar li muy tekki ñu ko gënoon dégg ci la bokk mooy lan yàlla gën a màgg moo gën a màgg lan lu dul moom kon baleen li ñuy def dem julli ji moo waral fu ñu mës a dégg noddu jàkk ja la ñu ne di wax ku ngeen dégg mu tudd leen ne Sëñ Abdou noddu nañ wala mu jóg jëm jàkk ja ma dab ko di ko wax soxla te naawaruma la waxul lu wér lu nit màgg-màgg nag bu xasee waaj jëm moom boo ko nee diw ku mu mën a doon du tontu bu la ruusee bu la ruusut nag dana la jànni moom ndax dalay mel ni lay jàppe saytaane su li yàlla santaane yow da ko bëgg a fànq ba du ko def kenn ko def bëgg foofu la àggoon. musta ginnaawal jaamu yàlla fonk gi mu fonk juróomi julli juróom. taxar naa bis boo xam ne dama doon tàngal kafe naaje yow bu may bu may dëbbu dajante ñuy salaatu mën na naa gaaw àggal balaa sañ bee génn ndax ma mën na aggal bala balaa génn ma dëbb ba noppi bu may dëbb yàgg ci digg mu ne tëll gi dem ci jàkk ji ne ma xanaa da nga déggul noddi man ko enquête ah mu ne mu boo ëllëgee soo déggee teg nodd lépp lu mu la fekk nga di ko def na ko bàyyi ba julli ban donte dara fekk ngay jàng alxuraan. bari loolu nag nu mu feeñee tàmbali ca tënku gi mu ci diini daanay faral di wax ne bokk na ci liñ mën a jàng ci moom ni yàlla bëgg ab jaam mel ni sëñ Abdou Khadir wane na ne mën naa nekk xam ñu bari ci ñun dañuy jàpp rek ne li yàlla digal daal kenn mënut yëpp mu daal góorgóorlu foo mën a waaye nag tegu ci yoon xocc doo wàcc benn yoon daal wóor tamit mënut a nekk ah kay am na ñoo xam ne ñëw nañ àdduna ba génn ko mosuñu wàcc yoon sëñ Abdou Khadir ñu bokk loolu mooy istixaamatu tegu ci yoon yi musu ko wàcc wane ne kon mën naa nekkit nag. góor góorlu ñàkk yitte ak am yitte fi ne pas-pas bu dëgër ak bu woyof fi ne loolu loolu la wane ci ak dund ci jëflanteem diggam ak boroomam musta wuute waxtu te it du julli fudul ci jàkk lu yéeme la wuute waxtu te du julli fudul ci jàkk biñ nekkee fii waxtu wu ne mooy jiite ci jumaa jàkk ji waxtu yi juróom waxtu wu ne mooy julli ci jàkk ji lum taw taw lum liw liw lum naaj naaj mooy dox dem julli yi dellusiwaat loolu la daan santaane itam biir kër gi daan def bu bu njëlee dana ma yeel ñëpp ñu yee ñëpp ñu julli ñu war a dem ci jàkk yi dem ci jàkk bi ba taxoon na nit ñi loolu lañ miinoon ci moom maanaam boo bëggee say say wax ak neex ci moom sax mooy dangay doon nit koo xam ne kii ku fonk lislaam la di ko jog ci tànk sunna bu ko defee daanaka moom ab xaritam nga doon moom koo xam ne noonu xam na ko si yow ab xaritam nga doon. beneen ba ca des mooy waajal ndigalul yàlla bu waxtu wi dikkee mu jooxee ko naka sunu borom bëggee te wax nañ xam-xam yi ba noppi nam koy defee mooy wal muqimina salaat nga xam ne ñi nga xam ne af qad aflaxal muminuun lasinahum fii salaatihim xaasiuun muminuun day wax ne jullit ña de texe nañ texe gu wér goo xam ne yàlla doo ko fet dëgëral ko ne ko ñan mu ne ña nga xam ne seenu julli ci xol lañ koy njëkk a yëg ca lañ koy gën a fonk ba mu feeñ ci seeni cër sëñ Abdou Khadre boo ne ko jàkk xam ne ab jullit a ngi nii loola lu ko waral mooy li ne ci xol bi la yàlla feeñal ci cër yi moo tax aw doxinam loola mooy listixaam loolu moom doy doy doy doy doy na roy waay ci tegu siraatal mustaqim sori gi mu sori ci borom nag moom ak li ko suñu borom defal ak jubóo gi mu jubóo jubóo jubóo moom daa dem ba àgg ci góor yàlla yi nga xam ne seeni noo lañu isaab mooy seeni noo bokkut ak jaam jaam yi nga xam ne eh, seeni jëf lañuy isaab te daa am guddi goo xam ne lu caag ak noonu ñun ñi nga xam ne suñu noonu la ñuy isaab kon kooku bokkuñ jubóo gi nga xam ne jubóo nag borom nag nag def buy taw buy sedd dégg nga xeste boobu mu xëy noonu ba ba ba ba ba ba jaaxle mu génne pare solam ba ni ak jàkk ja am mbokk di wax ne wax taw bi nangam mu ne ko mbubb muy tooy moo tane moom muy lakk te ku taw tewut ngir yàlla lakk sawar ma na laa lakk loolu taxoon na ci istixaamatu ci jàkk kenn fekku ci damay faral di wax ne bokk na ci li yéeme sëriñ Abdou Khadir ci jamono xamee sut jàkkaam inaayib yoo xam dañ naan tey ñëw na wala am na ngànt waaye julli siwut ci këram saa yu fi nekkee mooy jiite waxtu yépp الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن الشراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم خير wàllu jaamu yàlla it musu ko musu yaa def maslaa fu ñu nodde day mel ni koo xam ne kii dafa tag tàggoo sagoom Sëñ Abdou Khadir bokkoon jàkka la daawut julli mukk ci lu mu nekk ci lu ngànd jeeg di julli lu taw taw taw taw lu ngelaw ngelaw ngelaw na dem jàkka ja su ma saa taw ba ba yére yi tooy xëpp bu ñëw mu ne leen mu nunu xus ci taw de mu gën xus ci xal xos cib taw moo gën xos ci xal ku ne xam na ne li ko yàlla jaraloon bakkanam daawut fekke neex neexu neex walif ndigalul yàlla mukk ci àdduna moo tax fu ndigalul yàlla dikke xoolatu ca coono bi yaram du taw du xiinu ngelaman du tàngoor booba waa fàtti na jëmm ji waaye sunu borom rek la gis fu ndigalul yàlla jàpp ne nag moom rek nag la nit ñi di xoole sëñ Tuubaa ndax su teggi woon yoon ñëpp mën nañoo teggi yoon. daana wax ne ñu ngeen fonk jàkk yu baax ndax Sëriñ Tuubaa bi muy sañ ci dëkk bii jaamu yàlla ak liggéeyal si Xaadimu Xaadimu Rasuulillaahi sallallaahu alayhi wa sallam moo tax mu sanc ko ba dafa jumaa ju nii yéen sopp Rasuulillaahi sallallaahu alayhi wa sallam ngir fonk lislaam ñu baax di boroomi xam-xam melal nañ ko ci. cër bi nga xam ne moom la seddoo woon ci Serigne Touba muy imaamatu gi imaami Serigne Touba ci jumaa ju màgg ju rëy ji kooku mooy sëriñ Abdou Khadir Mbacké di imaam raati bu Touba mooy ñëw ngir jiite julli jumaa ji يكون مسلما يا زمن فتنا بأفضل الإيمان ولتنفي جميع بالأمان أبي سنا بي وبالإسلام فلتفزي كل أن المرام قدمت سيد البرايا أحمدا والأنبياء والرسل يا من أمدا قد الصلاة والسلام حبدا لهم كما قيدوا من لم يبدا بكو سونو بروم دا فاي مو نيك امام سيرن عبد الاحد مكي tànn na ko jox ko jumaa ji ginnaaw bi Cheikh Fadil magam génne àdduna radiyallahu anhum jamian 1968 1990 juróom benn ajjuma bi mooy ajjuma ji jiitu mu wàcc bu liggéey ñeent wala juróom yi mooy bi mu demee mag 1976 diggante novembre ak décembre ay 8 7 novembre wala 14 décembre sori foofu mooy dem mag ji bisi diggante boobu la fi jiitu jumaa ji. waaw mooy ajuma ji moom bi bi bi ci waajtaay rek ci la ci la ajuma ji mu jooju rek li julli julli julli jiwut wala wala wala wala ba muy aji loolu loolu rek mooy du ma daa jiite. loolu du ma wax ne mbaax rek la ko mbaax kese la waaye ci jagleel suñu borom a ndax lan nit dina baax bu baax jeex waaye wéradi dab ko tey du mën a julli ji ndax daa wéradi tey du mën a julli ji ndax daa tukki wi ne ci soxlay àdduna te yëpp yàlla nangu na ko dina ko nangul jàmbi waaye moom soxlaam moo doon buy tukki yit gaaw lay xëy wala xam ne see mu ndax faw bu ajuma dana jiite jumaa ñaar fukki at yu tegal nga jiite ko manqué ci yiñ ci xamoo yooyu ñu la wax te loolu ko waral loolu jagleel ak sunu borom ci karaama yi ñu war a bindal waa ju baax ci la bokk te loolu suñu borom defal na ko sëñ Abdou Khadre te loolu it noonu mu ko defee ci jumaa ji noonu la ko defee ci jàkk ji naan ne nga xam ne fu mu masa ne këram goo xam rek jàkka fa ne dëkk bu mu sanc muy Baxdaad muy bustaan fu ci nekk jàkka fa ne ci penc ma lay def jàkka ja fu mel ne bustaan sax la ci doy war jàkk ci daa xaw a sori daa xaw a kër gi waaye mbooyee meeg naaj weeg sedd bee ci yam faaw bu julli jotee dañ génn jiite mbooloo mi loolu mooy dëgg-dëgg listixaama ci diggante nit ki ak borom. ba xasee aju ma xasee ñëw amatul benn yitte bu dul bu dul waajal aju ma bu onze onze heures jotee rek tàmbali na tàmbali na waaj taay ba bu waxtu bu jotee fekk ne mu mu toog ci saal bi di nekk waxtu bu ne waxtu bu ne tàgg rek mu ne mu ne ñokket di wuti jàkka ja wuti jullikaay ba. وتفرد في شراج كماله فلا تعرف الظنون على معاني الذي يستمر بها الحامدون وأشكر بسجوده تقوم بها العيون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العالم ما كان قبل أن يكون أشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله يعلم من دون تصرف به الأنبياء والمرسلون اللهم صل وسلم على آله وصحبه ساعة مسام الدائم من ثلاثين لا يمين معدوم أما بعد يا أيها الناس ما في قبلتي التي أنتم عليها عاكفون رحمنا الله عيسى كل جمعة ودنا معرضون أتصلنا أنكم في الدنيا مخلدون أن تترحمون أنكم لا تموتون ولا تبعثون أن الأنبياء وإن الأولياء وإن المرسلون am jarbaatam bu bari xam-xam boo xam ne bii ku ko jege la def ci moom gannaaw bu mu fi jógee Euh, xasida gu rafet waxane gi tudd na ci ci jikkoom yi ak meloom yi ak melo lu lu lu doy sëkk dafa wax ne Sëñ Abdou Khadir di bu fi jógee bismillah لكم بيدنا الذي في كل من هرر إلى جماذا بيقول الغنرية فسألني وما لآلمك نرية لقد بيت الغيب آلم ألية ولقراني فما خير العليا رددني مقدري وأسفري بغير كفراني

الثناء والأماني إلي القربة لنا الرعيم يا بقي الإيمان بقرنين إلي القربة لنا الرعيم يا باقي الإيمان بالتربية لك رضائي والصلاة والعمرية يا به لك نذات الحمدية رحمتني تني مباقي يوميا فليدعو بحديث الرمية حجبت بيني وبين كل منية لا يقول إلا أوردني زمنية يسر لي تيسير من لا يعجزني مدته الفوائد وأجزيا مدة للأعظم في سروريا سنة للكتاب ذات الرعية سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين عن إرادي بلا مكارها ولا أمرادي رب لخير جاد سيدانا من طيب الممر والأوتانا فر لخير جاد لمين يسر غير فوق المعين هديتي من الإله والنبي كل يدي سبب وصفت به أو في غاد قابل الله أبقى لما لهم أبا بيال يا مقر الروح يدعوه أعاذني ممن غلو وخيله لا يتوجع لنا ومرضه عني مع المداري ولعبه سعادتي بغير ما ينجلبني وكوني عند الغريب كسبني سكرتي بعمري بعد يا سيدي يا مصطفى يا صلى علي من هداك فنادى حتى Thank you.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 لأوليائك ليصوم يا ربنا إن الورى تضرع لأوليائك ليصوم إليك يا رب الورى يا ربنا يا ربنا يا ربنا فكن لنا وجه لنا لطفا وامنا يا يا من تعالى لم يكن كفارا سيدي بالمناديات قصائد الكرام ولي تقود أبدا خير المرام عديتي مخجلة كل مني كان المراجع وعزاء مني ما تاج المسار الله لي بلا إله إلا الله الحمد لله الذي قد فتح أواب دين للنبي فانفتح ذاك الذي عصم من الله وراد عن العباد يقول هو الله الأحد أجي وسلي وتسلل سرمدا علي بلال ومن بيقتدى جئت إليك طالبا خيرات يا من كفيتني بديرات إلي كنت ما تلت بالكاد كما يبورني تلقى اليخوي بالندم وإنني بالمسالمة دمي نبينا صلى الله عليه بالله ومن والاه سيبتلي إلى الوقت النبي صل عليه بسلام النبي واحرم يا خير الكريم يا مبين رقيتني إليك يا رقيب أكرمتني وإنك الكريم ولي تسوف فوق ما لي سخط ومن كلما ومن وتقبل يا رب ما عملنا لي جد بالعلوم واللوالي وما يفوق سنة النوالي عديتي مني إليك يا يا من به ليس له كفر أحد واجعل لي سرمد الأمال بلا حساب وأسلم نخما أكرمني عند سبيل الدلال وخاذ لي ما بين شعالي لي ما ليس يكون أبدا لخير ذاتي وسروري أبدا فكتلي يا ذات الإخوان فسرمدا لتقبل إخواني تبت إليك وعليها تقتا يا من إذا تاب الفتى فتقطع حسن موتي طيب الحياة بحرمة الأبي في الليالي وليسر كل أمري بكل يا من يكون الذي لم يكن رمت خلتي إلى المختار علي خير صلاة بال أسأل وإنه المنان وابني بكون رنان يسر لي قبلة ما تعسرا على سوى بالنبي فيسرا تاب لي الله توبة ما عني ذنوبي وعيوبي محرم إلى سواي ساق كل الدير وليسوق دار كل خير لي خادم بان الأخران عصمني الله من القسران يخلد لي فيني يخلد

نجي جنابي ولتخلد البصر والتقني الحساب وفني سرى أشعنا وإن الواب لو غياب لو صاب لو سكوري وهو الغني الواسع المخني هو الولي لقبل سكوري يا ثكور كني wa kullu ma talabtu rabbi julli asaalu wa yulnawu lwaabu luul yaabu walloo saabu luul sukuuri wa huwa alxaniyu alwaasiu almuxni huwa alwali lixbal sukuur yaa sukuur kulli wa kullu ma talabtu rabbi julli وبمحمد رسول الله فذاك ياتيها بذكر الله وبمحمد رسول الله فاذت حياتي بذكر الله وبمحمد رسول الله وليجد بحق النصر نصرا في سر والدار وكل ميرا إليك وجهتنا خطابا مع اليقين وفادي تابا جلت بالمختار في غير الله يا من به كفيتني غير ردا أن تلقيا بنور وخي وخذني خير الولا بمخي فسوق ما لم يكن الخيار وخادني ما ود الأبرار سعى مكاري من قبلنا ما شاني من لي يقود منا بخي جميع متى نخل بيا ولي يغم مسألتي يا ربي يا ونعلم ما نسأل ولا يكل ونعمي وليتي مطربي ومطعمي علي مسليا علي بالسلام ولا لوسادك فيتني الملا منا عليا فوق مارون وسجي بسؤال يا كريم دعوتك اللهم بالمقدور يا من به وابت بالتقدير كل نداء والنية مخرادا بالمساق فيت من أمرادا أعرضت لي في حركات وسكون يا من به قد قلتني كن فيكون بالمرتجال مثبت الأقدام ودمني يا رب القدام كسبت النصر والعيوب كما محوت عني العيوب وطاهرا كليتي من النسيم سر وخلدي وروقي خبيث طابت علي بالمختار علي خير صلاة الباري وجه صلاة وسلاما أبدا يلي بلا وزن ودا وخل به بيني وبين كل ما يسوني في الأراضين وسما أسلك لي اليوم جميع أمري والسفينة ربي دار أمري أعني اللهم في اكتسابي بالمستوى وياسر نسابي أجب دعائي ولتسوق صلاتي illi anni watasilaat dem na ba Makka ngir jëfal boroomam lu yàlla wax mu def ko ngir boroomam Seex Abdul Xaadir Seex Abdul Xaadir Seex Abdul Xaadir ba Makka ngir jëfal boroomam yàlla wax mu def ko ngir boroomam fu ni jëlee dee kuy sàcc dëkk ngir bëgg ak boroomam Cheikh Abdou Khadar Baxdaad la sàcc ngir dëkk ak boroomam yàlla nañ ci dajeek tawfeex sëriñ bi barkeb xaside yi ñu ngi ñaanal sëriñ Basiiru Mbàkke moom Cheikh Abdou Khadar mu yàgg fi loolu tànn wér di ñaanal bi ñu àndal di leen ñaanal bu baax a baax mu soxna Xadi Ngom ak ñi mu àndal di nuyu bu baax waa daayira Tukaar sëñ Cheikh fay ak ñi mu feggool ñëpp ñi ngi jéggalu bu baax xaw a xaabaabal waaye yéene di sant bu baax sëñ Xaadim Sàmb ak sëriñ Axma Njaay nga xamante dañuy kenn ci nun leen ñaanal sëriñ bi dolli leen kattan defal leen tawféex barki xaside yi jërë ngeen jëf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 ما لكبائري ومن دمائري غافر اغفر كل ما تقدم وما تأخر وما بينهما فإني العلم وادرني علما وعملا وأتبوء فما ربي لكسب علوما نافعة وجل آياتي من تقاء مانعة اكسب لي الأسرار والخوامد يا خير من كتبت الرخام دا لجمع جميع ما تفرق لدى ختي من الخير وسفق لدى لخلدا تفكر الآدم يا طبيبكم ولتغزمن ألميا أبليا يا أكرم في التلاوة خيرا كثيرا منك والخلاوة بارك لي اللهم في آياتي وجل فؤادي وتنهل آياتي أبلي كوني بسر كل من يتوب وللدوائر أبي مع القيوب بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بحقك وجعل لي تعالى كريم صلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وفرحه أبدا بهذه المقدمة وأدخل السرور عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بها أبدا وانفع بها كل من أحبها وكل من اعتنى بها أو عان على تحصيلها آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم يقول عبد الله وهو أحمد خديم من سمعته محمد يقول عبد الله وهو أحمد خديم من سماته محمد بسم الإله وهو الرحمن وهو الرحيم خاتم الأمان الحمد لله على الكتاب ما سمع المسيب الإتاب سيدنا محمد خير الورى من خاد لي خدمته وزورا summa salaatullahi wa salaamu ala alladi minni law aqlaamu sayyidina safi inda almuqaddami inda alladi tasbu ladayni xidami muhammadin wasilati wa junnati عن الآد والأذى وجنتي وآله وسوفي أبراري في الآل والمآل في تكراري أذا وقدي خدمة تقر عين النبي بها كما تبر نويت عند الآم خدمة تسر مصطفى به كفيت ما سر خدرمت من رمي البرايا خدما لمن بجاي كفاني صدما أحمده على خروج من درل وكل سوء وعناء وخرل أشكره شكرا يجر سيدا بسر ولا يجر نحوي كيدا حمدا وشكرا لا سما برورا رب الورى وسقسقا غرورا فقلت نازما لذي القدما مسليا بها على من خدما مرتديا كون كوني قديما أسنى وأن أفوز بالمقر الأسنى متمسا بمالك أي ينفع بالذي يريد أن ينتفع جل الله بجاه المصطفى صلى عليه بسلام يصطفى نسما مباركا يقي العذاب كما الذي كابدني أصابا أرجوسة عابدة لله مع الكتاب ورسول الله سميت جالبة المراحب في آجل الكعاجل الإراخ بي سميته جالبة المراخب في آجل الكعاجل الإراخب قد انصرفت للمراد خائلا ما سفى إبائتا أو خائلا إن الله والملائكة يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك الراجي بين يديك مصليا مسلما على أكرم الخلق لديك خائلا alhamdulillahi wasalla abada ala alladi bihi lana alhuda abada alhamdulillahi wasalla abada ala alladi bihi lana alhuda abada sayyidina muhammadin wa alihi وسعفي ذوي النوال الوالي هذا وإن اليوم ذو التوسل له بأسماء ذوي التفضل فخذه يا غريب يا مجيب صل على الذي به تجيب واقبل به نزمي آذى يا كريم وهب لمن بي ينادي ما يروم ربي بنوح وبإبراهيم لغف ذنوب وكفن الرجيم وكن بموسى وبجاه عيسى وقيمي دنيا وأخرى بوسى وبمحمد رسول الله عليه خير صلوات لائم واجعل توسلي لمن يدعو به سعادة الدارين وفي لبي وليجد وللذي داني لنزمه بالأمن والرضوان وبالسعادة وبالإماية وبجملة الأسواء والعناية وبالنجاة من سؤال وعذاب وسكر ربي والإسلام وبالبسارة وبالسرور عند مماتنا وفي النسور وسليا وسلما على النبي وآله مع سآب النجم وفي لوالدي وفي لجميع أهلي وجملة سقابي يا سميع وفي لكل ذي تخلق بيا واقعا سعادتي يا ربي يا ضدنا وخونا وكلنا وابلنا خزن ختام ربنا وسليا على النبي وسلمي xaajtu kulla muslimin xew xaw ndigal ca réew kon danga làq wépp yiw teeka maa la ko wax mbooleem dee fi jubliwut yaroo ka gan gan koo rafet moo jara dox junni bi at di wut sëriñ bi ko jox ku yarulee ka mata am ku yarulee ka mata xam ku yarul matu la xam day tàggan fa say moroom day taxa gan fa sa boroom ku la yaru rekk a nax ku la mayoon ni junnit te jàppulub yar may it léegi nga gis junni yar ak boroom yar far ko te ku yaruwul matu matu la yar ku yaruwul ëlku na far ku yebu far tàbbal ko pax ab yar yoo moomu la dara ku ko amul amul dara ku ko amit ñàkkub dara sëriñ bi yàlla ñu ab yar la dee fi gën nit ab yar la dee fi rawi ab yar la dee fi si nit du alal ak rëy ji doon ki jur mat la damoo ragal yàlla mat a te ku ko am du ko damoo dootu gis baa xam nga sax ku gis boroomam dootu gis boppam moo ne dootu gis moroomam te dootu gis dara ka wax waxi lara moo tax ba yàlla ku ko am yaru te du ko xam ci am lub sëriñ nga xam ku xam du weddi lii ma wax ngir yàlla nee ci alquran wutal ci man ab kerkeraan sëriñ yi ab kerkeraan mur jàppal ci ji la wax alaaji nee ne ku bëggoon du teem wax lu leen jariñ doon te jëful loo leen wax gaaw leen a gaaw te jëf lu baax tey farlu fu ngeen fu nekk boole koog di xamlu bu leen di doon di mi ndee bu leen di fayu kenn coñ di te ñu xuloo amul njariñ nañ xam ne àdduna jeex na baa mu kaw ci firnde maa ngi tuub te balu tey bale bu wér te balu tey bale amal na la ka baax nay sant yàlla sunu boroom te sàkk ab kawe bu dul moroom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 يا ربنا يا ربنا يا قلنا يا حبنا صل على سيدنا محمد وسلم وآله وصحبه وذي تعلق به من أولياء حزبه ولتتقبل قلمي وارض عن الصحب الكرام ردا يغود للمرام وليكن يا ذا الأنام بلا عدا أول من واذكر صلاتي على سيدنا باب العلا وتالقصيدة تقبلا لوجهك المكرم يا ربنا صل على خير نبي أرسلا محمد وسل على أمته وسلم يا ربنا صل على غير رسول فضلا محمد وعفلا كتابتي وسلم يا ربنا صل على خير نبي قد علا محمد والتحبلا خطي به وسلم يا ربنا صل على خير رسول بجلا محمد وجملا هادي بي وسلم يا ربنا صل على خير شفيع قبلا محمد وكملا قصدي به وسلم يا ربنا صل على ماح أضال الوجلا محمد وحصلا ما سرني وسلم يا ربنا صل على خير سراج اعتلى محمد من قذلا ما ساءني وسلم يا ربنا صل على خير منير أرسلا محمد من كملا مراده وسلم يا ربنا صل على خير بشير مولا محمد من عجلا بشارته وسلم يا ربنا صل على من سبقه قد عقلا محمد من أخجلا خاليني وسلمي يا ربنا صل على من كظلي قد قزلا محمد من بجلا قصائدي وسلمي يا ربنا صل على غالي كل الغلاب محمد من غلاب مبارسي وسلمي صل على زار سما فوق البراق للظما محمد وكرما باسمه وسلم قد بات يارق الطباق في الليل قاصد وفاق والأنبياء باتفاق لاقوه بالتكرم واحترموا وقدموا وكرموا واستسلموا ضوابعا وعظموا بقدره المحترم دوادعوا إذ عرفوا رتبته وشرفوا لقاؤه واعترفوا بالفضل والتقدم وابتدروا بالمرحب والسهل والتأدب والبشر والتغرب لربه المقدم والكل منهم شرعا في مهمد إذ زمعا شكر ذبي الشبع مع الأمين الأقدم والكل منهم مدحا من بعد ما قد فرحا ببعثه وانشرحا صدرا لشكر النعم فغاب عنهم وارتقى فوق البراق للقاء حبيبه واخترقا حجب الإله المنعم ثم لداره ثناء وقد حوى كل منى منه وأذهب العنى وجالبات النقم نعم النبي والرسول نعم الذي جاد بزول لنا بربه الجميل من ذكره واللقم آية طه أحمدا لا تتناسى المدى عن القوى ذوي الهدى عن قدها بالقلم أرسله الله إلى كل ورى مرطلا سكرا عليه أنزلا هدى لذي التعلم أكرم بذلك الكتاب في هدى والصواب في قطاب والجواب من ربنا ذي القلم هو الشفاء من كل داء لمن عليه رمدا ومن أباه طردا ذا عسرة وندم وكل شخص الألحدا فيه ولم يجتهدا بتوبة لا فردا من ربه المنتقم wa huwa alladi man ihtadaa bi hadiihi naala hudaa wa yahtawil fawza ghadaa zaa izmatin min ni'amin wa huwa kitaabun mubiin jaa bihi nabiyyu amiin bi izni rabbil aalamiin hudan li haadhil aqwami wa huwa alladi man adbara anhu wa maa tadabbara في عوى رب الورى أدوكة للنوم وهو الذي من ثبتا فيه ولم يلتفتا ساع من يكن فتى عند الشكور الأكرم وهو الذي من اقتفى به ما قد كفى ولا يلام طويل وادي الكرم أحمد ربي على كتابه الذي على كل كتاب مغلى بكالكلي وبالفم أشكر ربي العظيم على كتابه الحكيم وفزت في بعلوم تفحم ذات تلفم كتاب ربي الكتاب بنظر ذلك الكتاب بي عدمت من عذاب وجانبات الصقم هو قليل وحبيب لي مغنيا لعن طبيب بسم الله لي يحبني لبيب يلب خير اللقم يا خير دير مضلاب من خير رب انزلاب ليتقوت نزلاب من ذي البقاء والقدم يا خير ذي قد بدا ممن صفائي أبدا ليقلدن رغدا لا أمل وقدم أنت رفيقي للجنان يا من يصوم للمكان ولي طيب الجنان يا خير ذكر محكم yaa xayra zikrin muttilaa bi fami zaakirin talaa suqli siwaaya man xolaa waliyakun wa xakkimin yaa xayra munzalin yuriim maa xaaba daa takabburin rabbi yusaffi bi kariim jërëjëf bika bi xayri tuhamin yaa xayra zikrin qad jama xayra l-uluumi wa لي عداي ومنع مني على توهمي أنت سبيلي والأنيس لي كنت بائق المقيس بقدم حرماه الرئيس مكيدي بالمرحم يا خير ذكر قد محى ماذا قلبي فمحى هب لي كوني مفلحا بالمنظر المفحم بك سألت مالكي كوني نور ذلك وذا انجذاب الناسك بمن جلا والمبهم وأن يقود للنبي في أبد من نقب سلام المقرب بالانجال والمخدم وأن يقود للنبي في أبد من نقب salaama al muqarribi bilal wal maqtami

ànd ak daayira yi nga xam ne mooy Mafatul lii sa yëmbal Mafatul Bichri bu jàmm gën daayira maam jaara muy ay soxna yu ànd fédération benn brak ak wakaana xaqan ñuy sant bu baax sëriñ Ndiaye xase ay mi jóge ba mbuur ànd ak mbooleem daayira jiwaalo yi ak sali ànd ak ku ñu wax Serigne Cheikh Silla sëriñ Birane jàllo ak sëñ euh, maam Ba sëñ Mamour Ba di sant it soxna Xadi Ngom ànd ak ku ñu wax sëriñ aboo Mbàkke bu ko defee ñii daal mooy ñi nga xam ne ñoo fi teew xam naa ñuy jébbal kàddu gi rek sëriñ Jiili Sàmb suñu noppee jox sëriñ Moustapha Mbàkke su ko defee daal di jox sëriñ bi mu ñaan ndax gis ngeen waxtu wi dañoo xoj kon bàyyi Jiili bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن bokki jullit yi bokki taalibe yi noo ngi leen di nuyu noo ngi leen di siyaare noo ngi leen di baalu àq te di leen baalu àq tey jiital ci nuyoo bi sunu sëriñ sunu wasiila sunu bunt ci kër sëñ Abdou Khadir di cheikh Mahamadul Bachir moom cheikh Abdou Khadir Mbacke di ñaan yàlla sama boroom yàlla sama boroom bàyyi ko fi te guddal aw fanam te wéral ay cëram ba mu yeggale ay naalam te nu ànd ko ak moom te mu fekk lépp ci daraje sëriñ Touba barke Cheikh Abdou Khadir di ñaanit mboolem jullit yi fi teew kenn ku ne su ko manee mu ñaanal sëriñ bi mu yàgg fi te wér kon ku ko man da nga ne Cheikh Mouhamadul Bachir moom Cheikh Abdou Khadir yàlla na fi yàgg te yàgg te yeggale te na ànd kook moom Cheikh Mouhamadul Bachir yàlla na nga fi yàgg te yegg te yeggale te na ko ak yow gannaaw loolu sëriñ bi noo ngi lay dellu nuyuwaat ndax jataay bi xat na te li muy xat xat xat ak sag baax ak sëg yëg doomu aadama ak sëg bëgg ay taalibe muy njobootuk sëriñ Tuubaa gi rekk moo tax nga may nu ndiir sii ngir nu mën a toog rekk waxtaan ci ak yow waxtaan wi nag du gudd mbàkke fi nu koy tàmbalee rek mooy bis bi bisub màggal la waaye nun dañ koy def bisub yeesuluwaat suñ diggante ak yow bisub jaayantewaat ak suñ diggante ak yow bisub laxasaayuwaat ngir liggéeyal sëriñ Tuubaa jaare ko ci yow mi nga xam ne yaay sunu bunt kon sëriñ bi maa ngi lay jottali nuyoo mboolem taalibe yi mboolem mbokk yi mboolem xarit yi rawatina daairatu bii nga xam ne mooy sa daaira bopp bii nga xam ne moo nga mu tuddi taawuni ala xidmati cheikh xatim noo ngi la ciy nuyu di la ci siyaare di la xamal ne mbàkke li nga bëggoon ci mbooloo mi lu ci bari suñu borom def na ko muy àndandoo yëkkateendoo di tegandoo di xalaatandoo di seet na nga xam ne na nga nose woon yoon wi bëgg nu ànd ko di ko liggéeyal sëriñ tuubaa jaare ko ci yow muy kenn ku ci nekk fa nga ko teg muy jëwriñ nga boole ko ak mbooloo ña nga leen boolool Mbàkke noo ngi lay yëgal na ñooñu ñëpp ña nga ci seeni gannaaw ànd ak jëwriñ ya nga leen booleel di yëkkateendoo di tegandoo di liggéeyal Serigne Touba ci guddi di liggéeyal Serigne Touba ci bëccëg ndax yow xam nañ ne loolu rek moo la ñal kon Mbàkke loolu danañ la koy seereel di la seereel na it indi nañu seeni addiye li ci ëpp dañu ko def matériel ndax jamono ji àbbi ay matériel lu ci bare bari léeg-léeg nañ koy àbbi war koo delloo muy saaw ba tax na lu ci bari jënde nañ ko ay ay cin ma nga nele ngay séen muy tege leneen la ca des seeni addiye mu ngi ñu yor fas la ko yéene jébbal ngir xam nañ ne la ma la waxoon ca daaru xadim ja mooy yow képp koo xamante ne dafee nekk ànd ak yow ngay buntam ci sëriñ Touba su doon waaxu boye boo muy daw ndax yow sëriñ Touba ci ngay xëy ci ngay gont amoo ci guddi amoo ci bëccëg amoo ci noppalu amoo ci àddiku sëriñ bi rek a la ñor ku ñor sëriñ bi it ñor na la nga doon nag sago yoon wi doon sagu kër gi te doon koo xamante ne mbooleem li nga xamante ne yàlla sama borom teg na ko ci sa loxo lépp mbàkke bokk nga ko ñëpp kenn ku ci nekk gis na ca boppam kenn ku ci nekk cër ba nga xam ne Sëriñ Tuubaa jox na ko ko jox nga ko ko kenn ku ne wàccuwaay ba nga xam ne sunu borom jox na ko ko muy wàccuwaay doomu aadama jox nga ko wàccuwaay boobu kon mbàkke noo ngi lay gërëm di la sant te di la ñaanal te di la xamal ne mbàkke nun de sunu sunum xel dal ndax lim da lim dalee mooy danoo xam ne bu bu fekkee bunt la am nañ bunt bi gën wala bunt ba bokk ci yëg ci kër sëriñ Touba ndax Serigne Touba moom bunt ba gën ci këram mooy bunt boo xam ne dangay liggéeyal yàlla ak yeneen beeg Serigne Touba te bañ caa boole daray ngistal sa njaboot gii seen liggéey bii ñuy liggéey ak ànd gi ñuy ànd ak yow mbakki si na nga xam ne daray ngistal néew ji seen lépp. seen lépp sëriñ tubaa rekk la seen lépp seen lépp sëriñ Abdou la seen lépp seen lépp sa jëmm ji rekk la te yow neex ngaa àndal ndax la ma la waxoon ci dara xadim ji rek képp ku la jox benn da nga ca teg fukk defal ko ci ci yoonu sëriñ Touba bi ku la jox fukk nga teg ci téeméer defal ko ci yoonu sëriñ Touba bi kon nun noo ngi sant bu baax di gërëm bu baax di dalal sa xel ci nga xam ne fas nañ yéene lépp loo xamante ne yaa nga nu koy digal fos nañ yéene di ca nekk guddi di ca nekk bëccëg te ñaanunu yàlla nga fekk nu ci dara looy loo xamante ne looy tere la te it loolu mën naa ci seere ndax njaboot gi bari na ci ñoo xam ne xam naa leen xàmmi naa leen te it ci ak jub rek laa laa leen xam te mosuma leen a dégg ci lenn loo xamante mbàkke ak juba jubadi la wala ñu ma dégg leen ci lenn loo xam ne day indi ay coow kon nag mbàkke ñoo ngi lay xamal ne njaboot gaa ngi nii dénkaat nañ la suñ bopp dénkaat nañ la suñ bopp dénkaan la ñu suñ bopp yow lan am fii yow leen am fële yow lan yaakaar fii yow lan yaakaar fële lu nuy am ci sëriñ Tuubaa ci sa bunt bii leen ko yaakaare kon nag fas nañ yéene lépp loo xamante ne ndigal la nga jox nu ko fas nañ yéene na nga ko bëggee daana ca def suñ kemtilaal kàttan ndax lii ndigal la loo xam ne amoon na bu yàggul rek daje bu ñu daje woon waaye keroog ba nuy waxit ca tabaski ga dama ne leen nan bàyyi ndax ab taalibe du njëkk a wax sëriñam lay xew ëllëg màggal gaa ngi ñëw waaye buñ ko tudd nan bàyyi ba sëriñ bi tuddal ko boppam bu ko tuddalee boppam rek daan ci am ndigal te buñ ci jógee daan ci daan ci mën a def suñ kamtilaal kàttan kon nag sëriñ bi noo ngi lay gërëm di la sant di ñaan nga ñaanal mbooloo mii ndax bare na ci ay ndaw yoo xam ne li ñu bëgg mooy am kàttan amuk wér am wërsëguñ liggéey la sëriñ tubaa wërsëguñ liggéey sëriñ tubaa kon ñaanal leen ñu am ak kàttan akuk wér ñaan sa borom ñu am wërsëg woo xamante ne ko mën a jaare liggéey la ko sëriñ Touba te lépp ñu jaare ko ci sa kër gii jaare ko ci sa bunt bi nga jottalil na ko sëriñ Touba nga doon sunu lam boo xam ne fépp fu nu fu nu mën a nekk yaay nekk ca sunu kanam dinu niital naan nu yoon waa ngi nii nuy ànd ak yow ci yoonu siraatal mustaqim nga ne dinu digal ten bañ a def lenn lenn loo xam ne Mbàkke da nga nu koy tere lu ci gàtt nag lu euh, ci wax ji lépp loo xamante ne xaw na cee am am lënd ci man mii la waaye taalibe yii moom li ci seen xel yi ak li ci seen xol yi mooy baax ak bëgg a baax ak yéene la jàmm ak bëggal la jàmm bëggal la fan wu gudd bëgg nga yeggale liggéey bii nga xam ne moom lañ teg sa loxo muy liggéeyu Sëriñ tubaab bi nga yóbbu ko foo xam ne ndax xam nañ ne yóbbu nañ ko sax yóbbu nga ko foo xam ne kenn foogu ko woon waaye nga yóbbu ko foo xamante ne nii kenn gënu ko woon a foog te rafet nañ ci njort kon sëriñ bi ñoo ngi lay ñaanal fan wu gudd ñaanal ak wér di la del dénkaat mbooloo mi te di la xamal ne nun ay taalibe sëriñ Tuubaa képp lañ yaay suñ bunt ci kër sëriñ Abdou Khadir sant nan la gërëm nan la di ñaan nag suñu jëwriñ dañ daa àndal mu daa nekk fii di sëriñ Alaaji sa daa dox doxin wu rafet nu daa ko ànd muy dox doxin wu rafet ba sama borom jëlee ko fi Mbàkke noo ngi ñaan nu yokk koo ñaanal sama borom yokk ay leeram jéggal te xare ko àjjana moom ñam fa fekk ak ña ko fa fekk ndax jàmbaar la woon nangoon naa liggéey te it am na fu la tegoon te nun ñii xam nañ ci dara kon noo ngi ñaan mboole mi kenn ku ci nekk mu ñaanal ko yàlla sama borom mu jéggal ko rek te xare ko àjjana wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu bisimilah. jërëjëf jërëjëf Baye Djili kàddu yi rafet na te jotale na comme niñ ko bëggee woon rek waxee nga ko noonu xam naa dafa am ñu ñu fàtte woon a tudd rek te waroon leen a jiital waaye bët moom li ko jege du ko gis mooy ndongay tarbiya yi nga xam ne dañoo nekk ak sëriñ bi ñun ñii ñëpp di ay taalibe ñu féete ñu foo xam ne ñun ñëpp lañ fa féete ndax mbooleem taalibe yi ñun ñëpp kenn ku ci ne ñii sëriñ bi ànd ak ñu nekk ci toolam yi nekk ci daaraam yi nekk ci ëttam bi di ko xëyal di ko gontul loolu lépp kenn ku nekk ci ñun la waroon comme suñu wàccee rek dafa fekk ne ñoom ñoom ñoo fa taxaw ñu nosu nag def daayira jokk ci fédération bi sëriñ bi tuddee leen nuuru daaray ni si njiital sëriñ Jili Ñang duñu lu am solo ñu ngi leen di sant bu baax ci teewaay bi di e, sant yi tamit daayira héliport te sëriñ Abdou Khader Ñang jiite ko sëriñ Abdou Khader Càmm waaye e, ñi ngi sant bu baaxit ñii nga xam ne sëriñ bi dañoo dañoo boole ñoom ku mel ne sëñ Matar Sylla ak sëriñ Moustapha Mbacke mii ñu war a jox kàddu boobaak léegi ñi ngi ñu féete fu ne ci wàllu ay conseil ak wàllu luy doxal liggéey bi loolu it yàlla na ñu seere ko sëñ Axma it keroog bi nga xamante ni liggéey bi jàll na def nañ ko jël sëñ Malick Diop def ko muy coordinateur jëwriñ bi depuis boobu it wax dëgg fa yàlla liggéey bi ñi ngi ciy am yaakaar comme ñi ngi ñaan sëriñ bi ñaanal ñu ba mu gën a nosu gën a neex gën a tegu ci kaw comme euh, ñu jox kàddu gi rek sëñ Moustapha bisimilah. auzu billahi bismillah inna waliyallah yaa rabbi ij'al muridina maa fi hisnika al-hazini wa zallaj maa matin wa hablahum ma ramu barke Cheikh Al Khadim ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci Mustafa alayhi salaatu wasalaam di sant suñu yaakaar yi tey ëllëg Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul di ñaanal Cheikh Mamadul Muntaxa mu yàgg fi loolu te ku wér waaye di nuyu ak a siyaar Cheikh Mahmadul Basir mii nga xam ne moo dox suñu dig moo dox suñu diggante ak Cheikh Abdoul Khadir dox suñu diggante ak sëriñ bi kon maa ngi yëkkati kàddu muy kàddu yoo xam ne kàddu yu ndigal waaye li ñu njëkk def mooy di fàttaliku Serigne bu Bousso di ko ñaanal suñ borom dolli ci moom yërmande ak njéggal waaye di sant bu baax mbokki taalibe yi nga xam ne ba màggal gi jubsee ba tey noppaluwuñ ci waxtaan ngir lu koy jagal loola nag bu jëlee cant gi jiital ci sëriñ Ahmadou Ndiaye ak sëriñ Xaadim Diagne mii ak sëriñ Modou Mamoun Mbakke ak sëriñ Makhtar Silla ak sëriñ Malick ak mbooleem ñi nga xam ne ñoo aju ci yëf yi ak mbooleem ñi nga xam ne ñoo jóge fu ne ci daayira yi xam naa ne sëriñ Xaadim lim na ñëpp waaye murit bu ci nekk booy liggéey jëf ja ñu nangu ko ngay gën a bëgg ci ñu koy tudd ba tax na daje bii ñu daje fii daje bi yeeslu la ak tëkkaat laxasaay ak jéem a wane li ñu Sëriñ Tubaa jaral ci suñ diggante ak moom ndax seex Cheikh Mamadou Bachir mii nga xam ne moo tax tey ñu toog fii ci suba ba tey ku nekk xam na coono yi muy jànkonteel waaye kenn ku ne mu bëgg itam bàyyi la xel ba boo demee mu yëg nga yëg ne yëg na la loo looloo waral coono bii maa ngi koy wax léegi Serigne Ahmadou Ndiaye ma ne ko dafay mel ne liñ doon riiñoo ko waxtaan ngir organiser ko sëriñ bi sax moo ñu ko dàq ndax lenn lu ci mën di doon rek bàyyi na ko xel. ba bari na sew-sew yoo xam ne sax daf koy bàyyi xel ngir xam ne mbooloo mi moom rekk lañ fekk ci ba tax na ginnaaw bi ñu santee jëwriñ yi ñu ngi leen di soññ soññee bi nag mooy ñu jéem a xam li nga xam ne daa yitteel sëriñ bi cam ñor ko ñu jéem cee taxaw ndax nit bu doxee sa digganteeg Serigne Touba dafa am leneen looy xaar ci moom ak looy xool ci moom ak looy séentu ci moom doo yam ak ki nga xam ne kóllëre rek moo ko boolee kër gi doo yam ak ki nga xam ne cofeel rek moo ko boolee kër gi waaye yow ñayu xare nga war a doon yow buñ ñu dee gis ñëpp it yow waruñu laa gis lay sëb liggéey mooy ba nga fexe ba mu jàkk maa ngi koy wax léegi di wax ne ñi gën a jàmbaare ci liggéey bi doo leen teg bët ndax loolu mooy jagal bis bi ndax bis bi ba ko sëñ bi wootee soññee ci la ci wàccoo ak ñun nu mu mel rek ñun la waaye du moom kon loolu it lu mat a bàyyi xel la ba tax na dañuy sant bu baax jëwri ñi nga xam ne ñoo féete ci waañ wi biñ leen di njëkk di soññ sax li tax yëf yi guddee mooy dañ ne mënuñoo bàyyi waañ wi di ñëw ca loola farata la kon ba fi mu nii am nañu fa ne moo tax jotaay bi mel nii ca mbooloo mi ëpp ña nga ca waañ wa te li ko sabab mooy fexe ba ku fi ñëw boo demee sant fexe ba teraange yi fi indi itam ñu fexe ba jaami yàlla yi jot ci kon liñ wan a gën a laxasaayu mooy sëriñ bi xam naa ne ñett bi yi moom fonk na ko lool ci jëmmi suñ tubaa rek a tax mu fonk bi ci jiitu mooy màggalu tubaa la ko ci war ci digganteem ak Serigne tubaa moo ñu ci war suñ digganteem ak moom tabaski gi itam li ko ci war ci digganteem ak Cheikh Mamadou Mountakha Serigne tubaa moo war taalibe yi suñ diggante ak moom màggalu Serigne Abdoul Khadir gi li ko ci war ci digganteem ak Serigne Cheikh mi Serigne Abdoul Khadir moo ñu war suñ diggante ak moom kon loolu taalibe bu ci nekk war na koo bàyyi xel te di ko waajal ca bàyyi ko xel bu baax a baax leneen li ci des. mooy sëriñ bi li ñu tàkku ci moom lenn képp la mooy ñu fexe ba liggéey buñ liggéey mu bëkki te defal ñu ci fajug aajo ñaanal donga yi bañ man man boo xam ne si nii kenn ku ci nekk da ngay takk sa laxasaay waaye dangay ngay indi fii say tere nga teg ko loolu nag bu fekkee ne dangay ngay liggéeyal sëriñ tubaa ci muy dëgg ci yow da koy fas ci sa xol ci jëmmi sëriñ tubaa rekk tax amul kenn koo xam ne da ngay jëfal sëriñ Touba ndax sëriñ bi da daan wax ne bant sax boo ma ko yëkkatil nang ci fas la nga bëgg ndax xam na fa mu toll digganteem ak boroomam rawatina bis bii nga xam ne dañ ciy fàttaliku sëriñ Abdul Xaadir te ku nekk xam na ne sëriñ Abdul Xaadir eh, ñi ko xam ñëpp xam nañ ne bàyyiwul sëriñ bi dara ciw melokaan ci ragal ragal ragal ragal mu ragaloon yàlla ak fonk gi mu fonkoon sukk ak bëgg gi bëggoon yàlla yi di leen dimbale loolu ñëpp xam nañ ko am di kóllëre ñëpp xam nañ ko bari nañu fa toog ñoo xam ne si ñii xëy na mën nañoo jox feneen waaye li leen fii mooy seen wuy jur ci boppam sëñ Abdou Khadre képp lañ xam te it li leen indi fii ci kanamu sëñ bi jikko képp la ndax Cheikh Mamadou Bachir saa yoo toogee ñett toog lañ lay wax mooy yëg di am ci jaam yi waaye ñun liñ ko gën a bëggee gën ko koo toppee cañ war ko cee mooy njàmbaar gi ak bëgg gi Sëriñ Tuubaa ak man gi ak mën a dimbale koo xam ne si nii tam da koy wóor ne maanaam safoo ku la soof maanaam nit koo xam ne si nii da lay wóor ne kii de jikkoom gërëmoo ko waaye nit du ko xam ci yow nit du ko gis ci yow muy ku yàlla dimbale koo xam ne boo bëggul ñëw léegi suufeel ko sa kilifaay ñëw toroxlu ci kanamam loolu li ko may mooy gëm gëm gëm Sëñ Tuubaa jox ko lépp moo tax du nit ku ni suufeen ndax daa kaweel Sëñ Tuubaa Sëñ Tuubaa même kaweel nag moo ko teg foo xam ne si bët bu ko gis xelit bëju ko kon loolu it lu mat xel la boo amee boo xam ne daa jeex tàkk ci Sëriñ Tuubaa da nga koy tiitaroo waaye Cheikh Mamadou Bassir ñaari catégorie dañ ko topp dafa am ñoo xam ne liñ koy toppee mooy àdduna rek am ñoo xam ne liñ koy topp mooy bëgg ci Sëriñ Tuubaa ak gëm gi ak wóolu gi ak doyloo gi ndax xam nañ ne loolu rek lañ cay jariñ ca kenn ku ne la nga ko toppee sañ nga ko ca am na fi ndax sëriñ bi bare na ñoo xam ne loolu rek lañ toppee woon ndax njariñul adduna la ak lul alaxira kon nag yéen ñii nga xam ne da ngeen di sukk ci bëti woonam oomam ne aslamtu nafsi na ngeen boole seen bopp te ngeen xam ne lenn képp la bëgg ci yéen mooy ngeen doon ay murit saadix te muy lu dëgg ci yéen ci am murit du tardeel boppam ci ay détails am murit du tardeel boppam ci ay wax waaye ab murit fuñ ko fekk ci jëf rekk la war a dox kon jëf jooju nga xam ne tàmbali ngeen ko fu ngeen ci bëgg àgg mën ngeen fa àgg nga xam ne feneen la ñu di jëf jëf yu rëy yi ñu jëf loole kenn ku ci nekk boo ko fajsal sa xol danga man lu ko am murit bu bëggee yokk day yéene léppam Sëriñ Tuubaa da gis koo xam ne day toog ci ruq jooy leen rekk ko tax di jooy mooy am yéene def bis bépp ca suñ borom mën loo ko kàttan waaye bis suñ borom man la rek nga xam ni kii jàmbaar dëgg la ca day feeñ ci kanam yi kon nag yàlla na leen saa borom dollee dimbale ca taxawu leen ca ñu ñaanal ko bu baax ndax fa sëriñ bi digle ñu teg fa tànk tànkam foofu rek la ko teg koo xam ne làq nga ngërëmul sëriñ Tuubaa te boo làqee ngërëmul sëriñ Saaliw ci luñ fekk làq ngërëmul Alaaji Daara ñoom suñ fàllu làq ngërëmul seex Sidi Muxtaar làq ngërëmul seex moom Mamadul Muntaxa mi nga xam ne daf koo wax ne ko li ma la gën a jàppee mooy fonk gi nga fonk jaamu yàlla ak sa positif kon moom làq na ngërëmul seex Mamadul Muntaxa kon nag nit boo koy topp cam am ngërëm soo góorgóorloo tuuti suñ borom mën na laa faj ndax moom bu ñu amee ngërëm ngërëm deret la kon loolu ngeen bàyyi ko xel bu baax te ñuy jox ci pas-pas cay dox ci pëstéef ce jëmmi suñ Tuubaa rekk tax ca ñu xam ne lii nga xam ne moom lañu yàlla boole ak moom li ñu ci war mooy lenn lii ñu ko dénk kenn jiituwuñu ci nit ñi ngir ñu taxaw ko jàppale ko doonte sëriñ bi taxawu na ko ci lépp waaye fexe ba li nga xam ne mënta agsi ci moom ca war a rafet lépp rafet comme ni ko mbokki taali bi doon defee bu kilifa ñëwee yàkkamti ñu naxanteeg moom ba du dem mel na ñooy sëriñ bi taxaw fa loolu la jëmmi taalibe bi di taxawee kenn ku ne da ngaa war a doon dentité sëriñ bi mu mel ne boo gisee sëriñ bi bu gi buñ gisee sëriñ bi gis nañ la ndax sëriñ Saliou da daan wax ne dongo yi képp ku ci takk sareet di dem la ngay doxe ji na ko xam fa ngay dem nan nga ko xam la ngay wax na nga ko xam ndax darajay jàmbur ngay doxee te lu ëllëgee loo wax day mel ne fa nga représenté moo wax wala moo def wala moo wax moo tax mbooleem koo xam ne suñ borom dalaa boo rek Cheikh Mamadou Bassir nga jege ko na nga am looy jombale sa bopp na nga am looy daw na nga am loo sori ndax noonu la ko suñ borom nag koo xam ne dañuy wax ci moom te defut yow ma ko jege war ngaa góorgóorlu ba doo def ñu ngi jégalu kàddu yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërëjëf sëriñ Moustapha kàddu yi rafet na te jotale na yal na yàlla sàmm la te kàttanal la jërëjëf suñ xol sedd na ci kàddu yi jërëjëf su ko defee rek xam naa. dañuy jox sëriñ bi waaye balaa ñu ko jox rek ñu jox euh, sëñ aadami mu barkeelu ci waa sëñ Ibrahima Sarr mu barkeelu ci ñetti minute rek ci xasida su ko defee ñu may ñu ñu tibb ñu lim rek yenn mag ñi nga xam ne ay magu taalibe leen te nekk ci kër gi ànd ak ñun du ñu du ñu du ñu wéttale suñ si tuddee sëriñ Maguette juuf ak sëriñ Dame Diop ak sëriñ njaay Tamaate ak sëriñ Massamba Thiam sëñ Cheikh Thiam di tudd it sëriñ Mansour mbay mi nga xam ne wax dëgg Mbàkke di ànd ak ñun ci liggéey bi ñoo ñëpp rek ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal na ñu yàgg ci kanam euh, euh, taalibe yi beneen bi it ñuy fàttali rek ni ko sëñ Moustapha waxee woon waaw mbooloo mi euh, dañ daan def su ziar bi jotee timis lañ ko daan def tey nag comme ni ko sëñ Modou euh, sëñ Moustapha waxee ñaari waañ yi mag yi nekk ci kër gi yëpp daanaka daayira yu mag yi ñoom ñoo ko yor te ñoo ca nekk nii mu xaw a guddi ak taw bi tey ñoom ñu féete fa beneen bi sëriñ bi da daan bëgg tey taaliba yëpp daje siyaar bu ko defee suba ñu mën a may ñi nga xam ne ñoom ñooy ñëw di siyaar si ñu mën a Euh, saafonteeg sëriñ bi ci wàllu googu kon bu ëllëgee dañuy ñaan gën koo teelal rek bu tàkkusaanee ñu def ko ndax mbooloo mi ndax ñu bëri toogaay bi yàgg na bañ mujj dem wax dëgg fi te ñoom ñëpp kenn ku ci ne amoon nga yéene fekke sëriñ bi waaye waañ yeeg yi ci aju ñu nekkoon ci ba mu guddi kon ñi jiite liggéey boobu tamit ñu ngi leen ciy soññ bu baax a baax ndax taalibe yi bis bii rek lañ am ngir siyaar sëriñ bi te it sëriñ bi wax dëgg mi ñu koy jox ba mu mat te du ko fàtte kon su ko defee ñu jox sëñ Ibrahima bu ci sànnee ñetti minute rek waaw ci sëñ Abdou Khadir doon imaam dafa bëggoon xayral anaam sëñ bee ko fal xayral limaam danaa la wax na kañ la woon Cheikh Abdoul Khadir ku mas ni jàkk nag ci moom sa jaaxle jeex Cheikh ji li moom bàyyi Cheikh Basiiru ku mas di tàllal loxoom dootoo jógaat di sàkku ñaan Cheikh Abdul Xaadar borom Baxdaad ku ñëw fi moom sa xel ma dal ngir ñëpp daal lay bàyyi xel day daa di feexal yow sa xol laaj la ba laaj la say cosaan kooku diw moo ana diw nga daal di jaaxle naan ko diw mu daal di lay leeral la loog loo xamuloon ku sopp Abdul Xaadar xam nga li tax mu doon imaam dafa bëggoon xayral anaam sëñ bee ko fal xayral limaam danaa la wax na kañ la woon bis ba mu gënee àdduna moom fële ñu noo daarul xalim moom la wala fi woon ndaam Cheikh Abdourahman ma nga fa woon muy ñetti fan tam xarit sëriñ bu mag bi beret nit nañ ma sama xarit am naa fi gan gu kiimaan nañu ma wool cer na mu ñëw ma wax ko lool mosula xew fenn fu dul fii cer na ñëw lii la ko yónni nag daal ñaan danaa la yónni nga tudd gan gi sa yoon wi na gudd ngir loo dajeel duñ ko tudd yomal xiyaam du gis sabaan Seex Xaadar ku gëne àddunay ràmm waxtu màggee di ràmm nu xam ni gaynde daayamu ba muy dikk la sedd woon addi Seex Abdul Xaadar jërëjëf sëriñ Ibrahima kàddu yi am na solo comme ñu jébbal kàddu gi sëriñ bi rek bisimilah sëñ maam bisimilah. jërëjëf sëriñ bi sama yaram dafa daw ndax aslamtu nafsi ni mu toll yow da ngaa xam àkkam nga jox ko ndax noo génnandoo ci kër gi ma xam ñi nga bàyyi ci saal yi ak ñi nga bàyyi ci néeg yi te bi ngay jóg tàggoo woo da nga ne ci dayre ya ndax ñoom ñii danoo jaayante jox la seen bopp ngir sëñ tubaa yaakaar ne àddina ak alaaxira waaye àq ji ñu am delloo nga leen ko te tolluwaay bii nga toll ak fi la sëñ tubaa tollale ak fi nga toll ci yoon wi amaana kook bu fi tolloon bu amul ndimbal dëgg du defee nii nga defe danaan daayira yi moom dañ maa topp rek ngir sëñ tubaa te ku ma yebal ci ñoom mu doy sëñ ma mii bu ñëwoon ne leen sëñ bi nee na ñoom ñii lool da leen di doy sëkk nga bernde leen sa jëmm ji nga defaat loolu it ma seetlu ko ndax ci suba ba tey maag yow a yendu maa ngi sa lu la waay nuyoo kii nga ko jox mu téye ñoom liñ la jox ba dugal ko ci sa jiba mooy doo leen fàtte fii doo leen fàtte ëllëg te loo am bisu penc da nga ko bokk ak ñoom te nag na ngeen dalal seen xel te gën a dolli seen yaakaar ndax kii ngeen am ku yaakaaru la ku mat sëkk li mu doon la damaa dee léegi aboo ma ne ko ñii nii ni def nii ma fekke ko yow day da ngay dem ba sax sëriñ Basiiru cër bi mu yor yow da ngay topp porte parole waaye ñii dañ lay fàttali ni sax kii doomi sëñ Abdou Khadir la sëñ Abdou Khadir kan moom la Ibra Sarr wax léegi bi mu gënee àdduna sëñ Touba dane maam Cerno yéexalal say jéego ndax koo dajeel yaramam araama na sawar du lakk fii du lakk fa nu jëm sa baay laata moo gënee àdduna imaam la bi muy dund di imaam te bu demee yomal xiyaam imaam lay doon kon nag Mbàkke yal na yàlla yàgg taxawaay ñett na ku ko am rëcc wutaloo ko sa dañ la ko wutal xarit jabar akub sëriñ moom nit a koy tànnal boppam te ku la tànn na xam ne bu doon rëbb sooyul te bu doon diir jam na sa mag yu baax yëpp gërëm nañ na doy na sa kub cër bokk ci sëñ tubaa keroog bi sa maam sëñ tubaa dañu bi àjjana maam na dañ ne ko loo xam ci moom dane askan wi ñu bokk moo ci njëkk a juddu gën baayam askan wi ñu bokk moo njëkk a tane ay mbokkam dimbali leen kon yéen ndimbalu sëriñ bi bokk ci sëriñ bi rek doy na foo dem ci mbedd joxe loxo ñu jox la benn loxo boo nee santoo ñu ne bi day ñëw beneen boobu di ñëw nag moom la nit ki war a bàyyi xel ba lu muy def mu xam ko waaye yow beneen boobu di ñëw mbàkke xam nga ko jox nga ko cëram ku la yaakaar du rus defoo lu mata matadi te sa lépp a mat képp kuy bëgg sëñ Tuubaa bu ñëwee ci yow dana yokk sëñ Masamba sama sëriñ dafa sant sëñ Tuubaa ba rangoñam rot sëñ bi ne ko ma Masamba mu ne ko mbàkke mu ne ko mbaa mbaa fere yi duñ ma wor mu ne ko mbàkke yow kenn du la am di la bàyyi Masamba mu ne ko mbàkke mu ne ko war ma mooy nit xemmem ma jëm si ci man ni yem ci yéen dëpp waaye yow képp kuy xemmem sëñ Tuubaa bu ñëwee caw da koy gën a yokk sëriñ bi nee na asalaamaaleykum. asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ñu ngi nuyu waa daayira bi yëpp di leen sant di leen gërëm xam naa kàddu yi sax du gudd ndax liñ ci waroon wax yëpp soññee ngeen ko fàttali ngeen ko kon cant ak ngërëm rek lay doon. mooy seen taxawaay ak seen pësteef ci waxtu wu ne guddeeg bëccëg te jëm Sëriñ Tuubaa rek tax kon ñu leen di xamal ne mboolem li ngeen di jëf lépp ci pësteef ak yitte lépp yëg nañ ko waaye buñ ko gisutoon yëguñ ko it na ngeen doyloo ci am ci àdduna réccu du ci am ci àllaaxira di leen soññaat rek ci góorgóorlu ci santaane Sëriñ Tuubaa yi santaane Sëriñ lépp nag dara génnu ci diggalu suñu borom yi kon maa ngi leen di yee salaat loolu ngir xam ne kenn ku kenn ku ku ñëw ci yéen ku ne la ko tax a mooy yaakaar ndimbalu Sëriñ Tuubaa ci àdduna ak ci àllaaxira te Sëriñ Tuubaa kat la Cheikh Abdoul Ahad waxoon ne fi la faqam jullee woor waaye mu see faj aaju kenn kon xam nga ne liggéeyal ko ndax julli ak woor yàlla bi muy bind doomu aadama sàkk ko moo tax kon loolu bu ñu ko doon misaal tey day mel ne li ñuy tuddee lempo impo te mag ñi daa ko tuddee lempo bu njëkk moo soo gis nit fay impo bañ na dem koy takkal bu garab ndax loolu wërtee jullee gu war itam nag kenn du ci amee médaille ndax loolu moo tax suñu borom sàkk si ko suuf la tax suñu borom di la dolli ay ngëneel sa digg sa digg ak moom nag mm-hmm. mooy nawaafil yi noo fi lu xayraat yi ngeen di dégg loolu dara jiitu ci nag liggéey sëñ Tuubaa te mooy xidma li nga xam ne sëriñ Tuubaa moo ko ñëw jëmmal ko jaar ci sàkku ci ngërëmul boromam ba am ko ci ku ma sa ñëw ci moom ku ne mu jaar la ci yoon wa mu yoon wu gaaw woo xam ne tey bu ko doon misaal day mel ne étage immeuble bu mag boo xam ne mën a téeméeri étage nit di dox ci iskale ñu defee ascenseur gaawaay ba na muy demee noonu lay demee loolu mooy li suñu borom bi junj ci alxuraan di wax ne ñi nga xam ne seen maam yi dañoo baaxoon waaye amul daraja jañ amoon mënuñoo jëf jëf jëm doon jëf yàlla suñu borom nee na dama leen di yéegal ñu àgg ci seen daraja maam wallazina amanu wattaba'athum zurriyyatuhum bi imanin alhaqna bihim zurriyyatahum kon nag ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di ñaan ci barke Sëriñ Tuubaa barke bis bii di bisu Cheikh Abdoul Khadir nga xam ne Sëriñ Tuubaa dooma yi ñëpp na ko suñu mbóot bu sam ge di woon rek bi nga xamee ne Sëriñ Tuubaa ñibbi si na Tuubaa sëñ Mbàkke bu so digal ko ne ko marché yàlla sëñ bi mu wax ne fahumu kën nujuumi man talqa minhum xiltuhu kaana sayyidal axyaari neen njabootu sëñ Tuubaa gi dañoo mel ne ay biddiw ci asamaan si biddiw yi nag boo njëkk a dajal rek da ngay daa jàpp ne mooy sangu tànneef yi kon noonu la la sëñ Tuubaa defal kenn ku ci ne sëñ Tuubaa dafa jël lenn ci jikkoom def ko ci yow bu jëpp yi da bu jëpp jikko yëpp dajee nag di jëm sëñ Tuubaa moo moo sëñ Tuubaa fa àgg kenn mënu koo natt ndax boo doon xool doomam yi li ñuy baax baax baax nii ma ko misaal rek nga demee sëriñ sooy bi daan wax ne bu ngeen gisee waa kër Sëriñ Tuubaa yi ñëpp di sàkku Sëriñ Tuubaa ci seen moroom nee na dafa mel ne ne daa ngay gis Sëriñ Tuubaa muy muy muy jàpp ba noppi ñu dékk ko muy jël jàpp ma di ko naanaat bañ ko ko laajee bu wax ne li ñëpp gis ci jëmm ji ba daw jëm ci moom jëmm ji da koo gis ci moom te bëgg ko cëpp la kon sëñ Tuubaa daana jël mës a nangu sëñ Tuubaa mës a ko defal dara bu dee warga moo ko toggal boppam wa innaka la tahdi ila sirati mustaqim noonu la ko daa tàngale wa innaka la tahdi ila sirati mustaqim sirati llahi lasi lahu ma fi samawati wa ma fi al ard ala tasiru l umur lu mu mas di def rek da koy natt ci dala bu dee café it la ci ëpp mooy xambal boppam taal bi seggal ko boppam tàngale ko xelli ko boppam Sëñ Tuubaa mos na ko defal dara loolu nag la ci jiitu mooy da jëmm ji daal liggéey jëmm ji kon nag bu ñu amee tawféex Sëriñ Tuubaa wan ñu yoon wi nga xam ne moo gën a gaaw àgg ci suñu borom te mooy liggéeyal ko war nañ caa góorgóorlu te di ko sellal sellal gi rek mooy lépp looy jëf ci Sëriñ Tuubaa nga di ko nga di ko def te di ko seereel yàlla mi tax di ko seereel Sëriñ Tuubaa bu ko ndax bu ci ngistal duggee mu yàqu bu ca naw jëf duggee mu yàqu ndax jëf li ko mën yàq daa bari li Sëriñ Tuubaa di wax ne wa rubbama ibadatun kathira qad afsadatha alxisatun aqiira nee na danga gis nit mu jëf-jëf ju bari waaye moo xalaat ni jëf naa lu bari jëf ji yàqu kon yàlla nañu yàlla musal ci loolu kon laa tubtilu sadaqaatikum bil manni wal azaa moo tax alxuraan di ko santaane boo jëfee sax dañuy bëgg jëf ji nga fàtte ko ndax boo ko fàttuwul wala nga yéem ko rek bu yàggee ak yàqule mën na dugg kon nag nañ gën góorgóorlu bu baax xam ne jaam bi ci diggante al xawf war rajaa rek la war nekk mooy di yaakaar njëggalul yàlla waaye nag laa taqnatum bi rahmatillah inna allaha yaxfiru zunuba jamiian waaye nag bu leen bu leen naagu mukk itam ci jàpp ne raw ngeen ndax li fi duggoo ci sa biir bàmmeel rek yàqulu weesul ci yow yàqulu weesul ci jàmm kon nañuy góorlu ci bañ a naagu ci jëf yu bon yi waaye bañ a naagu ci jëf yu baax yi bu ñu ko defee rek la ci suñu borom danañu gàttalu kon ñu ngi leen di sant bu baax wax jotaay bi dafa guddi tey xam naa boo liggéey rek ñu fexe ba gën cee defaatu farlu ndax li ko def ci delloo ko ci waxtu yu ko daa def ndax boo xasee guddi nit ñi ñëpp dañu sonn tey di ci bari ñu dëkk fu sori te ndegam bis bii rek mooy seen bisu siyaare bu ñu ñëwee bëgg siyaare waat suba dana xat ci nit ñi kon boo liggéey dañ ko daa defee rek yéen taalibe yi ñëpp di siyaare bisu tey boo liggéey ñu bàyyi bàyyoo ko ñi nga xam ne ay gan lañ mooy gën waaye bu fekkente ne dañoo bàyyi ba ba mu guddi xam naa looloo ko indi waaye kon boo liggéey rek ñu ngi leen ci soñ mu gën a teel ndax mooy gën ci yan may tam mooy gën ci moom ndax comme bis bi noonu lañ ko defee te buñ soñoon liñ ci waxee tam ñëpp dégg ko waaye ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm ci weesu yëpp nag li ci mujj mooy tabaski yi tabaski yi jëf ngeen ci jëf ju rëy ndax loo xam ne ren ngeen ko tàmbali waaye jëf ji àgg na foo xam ne kawe na sama jort waaye lépp itam ci Sëñ Tuubaa lañ ko delloo yàlla na ko Sëñ Tuubaa nangu lu ci waaye jëfoon lu mu néew la bu doon benn dërëm itam yàlla na ko suñu borom fay tuyaabay ay junni junni ndax Sëriñ Tuubaa lu ko waaye jëfal boo ko pëseef lalee lu mu té lu mu néew néew rek mën naa faj sa te suñu borom man jaa bil bil xasanati falahu asru amthaliha wa man jaa bis sayyiati falahu yujza illa mislaha boo ko jëfalee benn mu fay la ko fukk boo ko defee benn bu ñaawet mu delloo lu ko ndax mu amul lu bon sa jëf sa lu bon la nga jëf jëme ko ci moom la lay delluwaat kon nag ñu gën a góorgóorlu te loolu yitte yi taxawaay bi ngeen def ci diggante daaw ren ci baas yi nga xam ne dajale woon ngeen ko ba jënd ko bàyyi ko ci kër gi ngir bu ngeen ko soxlaa di ko def loole itam ak ni ngeen defaat ci màggat gi na ngeen ci góorgóorlu te di ko sàmm lu ngeen ci defat it fexe ba lu ngeen def ren bu ëllëgee ngeen yokk ko te sàmm ko bu ko defee bu mu ci kër gi soxla ko sa waaye képp koo soxla yaakaar Sëriñ Tuubaa te te soxla ko ci yéen jàpp leen ne ngeen jox ko ko mooy ngeen jox ma ko ñoom kon loolu itam maa ngi leen ciy soññ ndax xam ne taalibe Sëriñ Tuubaa yëpp lenn rek lañ koo bokkal Sëriñ Tuubaa rek yéen a bokkal yéen a yéen a raw koo bokkal day bàyyi ndax bokk ngeen du ngeen mën a séddoo taalibe yëpp fa fa la ñu ne ndax innamal mu'minuuna ixwatun fa aslihu bayna axawaykum waaye Sëriñ Tuubaa rek nañ xam ne moo ñaanoo suñu borom dajal lu koy taalibe bi washam lajmaha bari na loolu fu mu koy bind ci téere yi yow suñu borom yàlla nga ma dajaleel samay taalibe ba duñ mën a tàggoo nett woon naa ko bu yàggu ca Daaru Xadim ci la ci Cheikh Abdoul Ahad Mbacké waxoon ne la taxoon 1988 mu joxe ci ndigal bokk na ca la Sëñ Tuubaa ñaanoon taalibe yi bañ a tàggale ko tam gis ne saytaane dugg na foofu ngir bëgg leen xajjale te moom koy jaare ci li ñu tuddee li ñu tuddee léegi démocratie ak parti politique te ki nga bokkal Sëriñ Tuubaa moo waral koo bokkal day bàyyi ndax moom nga bokkal pas Pastef te li ci des lépp amul solo mbiru àdduna la mbiru àdduna moom balaa tey mu mel ne lu ma a li am solo nag loo xam ne sa yaakaar àdduna di jaane sa yaakaar àllaaxira kon képp koo bokkal Sëriñ Tuubaa foo ko giseete na nga ko jàppee koo na nga ko jàppee lu raw koo bokkal day bàyyi ndax la ngeen bokk moo gën a foor ci yéen day bàyyi suñ bay jaxate ba ñëwee ci Sëriñ Tuubaa di ko wax ne ko yaa ma gënal sama ndey yaa ma gënal sama baay Sëriñ Tuubaa da ko wax ne ko Babacar loolu kenn du ko wax sa ndey ak sa baay kenn mënula la ko gënal waxal ne yaa gën ci man sama ndey yaa gën ci man sama baay kon suñu Tuubaa nag dañoo yaakaar ci moom dañoo yaakaar ci moom loo xam ne mënu su ko mënu su ko am ci kenn moo tax ñëpp ña bokk ak moom ñëpp jël seenu njureen ak seenu mbokk lépp jëli ko taalib taalib gen nag mooy leen may ñu am ba faw ku ko mos a liggéeyal ko ne ba say setaati set ku mu mujj rek barke ba xew gën a yokk te nii mu doon ko defaree ci àdduna bu àlligéey mu ëpp ndax loolu moo waxoon ne suñ borom nee na ma haza ataauna fam nun awam sik bi xëy na sa mbir mii bu la neexee jëfandikoo ko bu la neexee tey bu la neexee joxe te xisaab du ci am kon nee waxoon na it ne lépp luñ leen jox te laaj ju leen ko ngir sama jëmm noonu rek lay demee day doon loo xam ne xisaab du ci am bële gi ku ca wuuteeg lam lam lam def nag wala nga dóor ko fu fu fu fu fu mu bëggul nag boo léegi sa responsabilité boobu la kon ñu ngi leen di sant bu baax ñaan bis bii lu ci waaye fas yàlla na ko suñu doon defal ku ci indaale woon aaj yàlla na ko yàlla fajal ku ci indaale woon wér yàlla suñu doon tàggaleeg moom képp koo xam ne yaa ngi doon yuutu loo mën te ñàkk tam jëfee ci itam yàlla na suñu borom dimbali suñu tubaab dimbali la ci gàttal la ci ba loolu yomb ci yow asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa amin amin amin ñu ñëpp tàllal amin amin yaa rabbal alamin amin amin jërëjëf Mbacke ñu fi yàgg te wér comme na ñëpp toog na ñëpp toog ba sëriñ bi génn su ko defee daayira bi jógee Mbuur muy ka ànd ak sëñ Njaay Xasaay dañoo bëgg a dundal guddi àjjuma gi comme su ko defee nañ toog ba mu jub ba pare ñëpp toog bu leen njëkk a bu ko defee comme kuréel gi tàmbali fi bismillah sëñ Njaay comme xam naa ñu yor sono bi kàddu yi kàddu yi sant rek la ni ko sëñ bi yónnee Abdou Lahad Kam yi mu ñëw fekk ma fi ma war ko jottali loolu nag digganteem ak Cheikh Mouhamed Bassir mii la ci nu mu ko jàppee ak nu mu ko téye lii sëñ si di def nag feeñal digganteek moom digganteem ak moom la ci jublu ak jàppam jàpp gi defe na àdduna sépp xam nañ ko ndax umpul kenn ndax euh, wér na ñëpp ni at mu jot dana ko woo ci këram defal ko ngan ndax diggante suñu ñaari waajur yu tedd yi mm-hmm. li xewoon seen diggante loolu rek a fi nekk ci seen diggante jàppe na ko nawle jàppe ko taalibe jàppe ko xarit jàppe ko mbokk jàppe ko lépp moom mii nag da koo jëf ci diggante ak moom jëf ju mat sëkk joo xam ne ñëpp teg nañ ci bët ndax nit mun ta weesu teg la foo xam ne bu fi waajuram nekkoon mënu koo weesoo ak moom mm-hmm. teg na ko fu kawee kawe goo xam tam da caa boole nag am cofeel ci moom ak yéene yoo xam ne ñun ñii tey dara lu nu ci ump nekku ci moom nag day faral di wax ni moom sëriñ bi jëf du ànd ak wax ndax lii ñuy wax sax du ko gënal ndax bindoowul noonu moom moom jëf la gën a fonk ci wax waaye nag sant tam mënu su koo ñàkk a seede ci Cheikh Modou Bassir mi ci ni mu ko téye ak ni muy doxale seen diggante ci lépp leer Abdou Lahad mi leer ma mën mi ak it di ko santaatit it ci Abdou Lahad mii nga xam ne ñoo bokk liggéey bi ndax yàlla dafa def biñ ko fi tegee sëñ si di woo ko boole leen ñoom ñaar boole koo xam ne ba mu leen boolee ba na gën a si jamonoy sëñ si di maxtaar ba léegi lu ne jaar na fi xëy na am na yeneen yu fi jaar waaye lu mu ca mën a doon rek Cheikh Bassir jàppale na ko ba mu jéggi loola ba àgg ba dara yàquut te lu mu def nag kër Cheikh Abdoul Ahad la ko defal ak sëñ Sidi mi nga xam ne moom lañ ko dénk ñu wëlbatikuwaat it di sant sëñ Mouhamadou Mountakha mi nga xam ni moo ko joxoñ tañ xam li ne ci diggante bi kon sëñ Bass daal li koy ñaanal fan wu gudd waaye cantuk sëñ Sidi ci moom ak xoolam ci moom ak jàppam ci moom am na tàmbali waaye amutub yomukaay Abdou Lahad a ngi nii nag moo ko boolee yow xamal ko ni ko lépp lu la Seex Bass wax def ko nam la ko wax bisimilah mu bokk sëriñ bi mu ne asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu euh, sëriñ Mahmoudane kat di suñu kilifa mu sëriñ Mahmoudane kilifaam waaye daanaka say wax mën naa yóbbaale sama wax. waaye daanaka nag say wax mën naa yóbbaale ay waxam. ndax man mën ngaa wax tontu sa bopp. nee ndax wax jëf ji kat mën ngaa wax ba noppi tontu sa bopp. ndax ndax lépp day lépp lépp day ci sa kanam. ndax lépp day ci sa kanam. lépp di ci sa yéene. lépp sa yéene na ci. ak sa xol. ak sa xol. kon nag. kon nag. sëñ Abdou Lahad. Cheikh Abdou Lahad Ka ñu ngi lay yóbbantewaat nuyoo ñu ngi lay yóbbantewaat am nuyoo ak ci ak cant ak ci sëriñ bi ak cant bu jëm ci sëriñ bi li ma wax li ma la wax léegi ci biir ak sëñ Mahamadoon rek nee na lim la waxaloon boppam ci biir yaa ak sëñ Mahamadoon mooy lii waru sëñ bi ci ñun mooy lii warul sëñ bi ci moom. xam na ne yéeneem rek lay wane ci ñoom. xam na ne rek yéeneem lay wane ci moom. muy loo xam ne adduna sépp xam nañ ko. muy loo xam ne nag adduna bépp xam nañ ko. ndax fi ni ma jàppee. ndax ni mu ko jàppee. ak ni ma def dara mënu caa dolli ko. ak ni mu ko def dara mënu caa dolli. da ngay dem ba am ci kersa sax. da ngay dem sax ba mujj am ci kersa. ndax dëgg la euh, mag la ci ñun. nee na dëgg la Serigne Sidi mag la ci moom. waaye atteb waajur la ci ñun. waaye nag atteb waajur la ci moom it. kon nag bu ñu jàppee nii. kon bu ko jàppee nii. day loo xam ne ak baaxam moo toll foofu. day loo xam ne rek baaxu sëñ Sidi moo toll foofu. kon ñu ngi santal ñu ko bu baax. kon nee na mi ngi sàkku nga santal ko ko bu baax. te gërëmal ko ko. te gërëmal ko ko. nee ko daal suñ lii jëf ji rëyaat na ci ñun lool. nee na daal jëf ji rëyaat na ci moom. ndax moom waxtu wu ne. ndax moom waxtu wu ne. li sëñ Mahmoud doon wax rek. li sëñ moo doon wax. lu jàpp ci nit. lu jàpp ci nit. du ca boole wax. du ca boole ay wax. waaye da koy jëf. waaye da koy jëf. ba àdduna sépp xam ko. ba àdduna bépp xam ne jëf nag kon nag lay sant bu baax. sëñ Mahmoudane yow it ñu lay sant. ndax daanaka waruma laa sant sax. daanaka waru laa sant ndax la mooy sant sama bopp ndax sant la mooy sant boppam fi ñëw ndax fii eh, wu ne da nga si waxtu wu ne dana la fi fekk nga xëy si tey ji yaa ko fi jëkk tey ji yaa ko fi jëkk xool si kër gi xoolal sa kër gi door a ñibbi door a ñibbi si waat kon loolu kon loolu kon loolu bu doon sa kër bopp sa mën nga caa bañ a bu doon sa kër biir bopp it mën nga faa bañ a àgg tey ji am na ñu fi indi teraanga yu bari tey ji am na teraanga yu bari yoo fi indi ñu fi indi yuñ fi indi yoo xam ne ñooñu yaa leen fi yebal ñoo xam ne yaa leen fi yebal ñu ñëw miinu ma leen sax miinu ma leen miinu leen sax. waaye yaa leen xiirtal ci waaye yaa leen xiirtal ci moom. jëfloo leen ci màggal gi jëfloo leen ci màggal gi. sëñ Abdou Lahad mii itam. sëñ Abdou Lahad ka mii nag. yàlla def na yàgg yàgg na ci jamono sëñ Saaliwu. yàlla def na sama diggante moom yàgg na ci jamono sëñ Saaliwu. yaa yaa ma njëkk a woo. yaa ko njëkk woo. woo ko. woo ko. boole ma moom. boole kook ak moom. boobu ba nag nag. booba ba nëgëni nag. ànd bi rafet lool. ànd bi rafet lool. bi yàlla defee itam. bi yàlla defee itam. liggéey bi nekk ci sama loxo. liggéey bi nekk ci loxom sëñ Sidi tegaat liggéey dëkk bi ci loxom sëriñ Sidi tegaat liggéeyu dëkk bi ci loxom ci jamonoy sëñ Sidi Muxtaar. ci jamonoy sëñ Sidi Muxtaar. damaa woo woo ko ci kër sëñ Abdou Lahad. da koo woo woo sëñ Abdou Lahad ci biir kër jël sama loxo jël loxoom. jël loxom Abdou Lahad ka jël loxol Cheikh Mamadou Bassir. boole ñu. boole leen. nee man kat samay mbir day leer nañ. na ko man nag samay mbir day leer nañ. daanaka boole naa la ak Bassirou mi. daal ko ne boole naa la ak Bassirou mi lépp lu mu la wax rek. lépp lu mu la wax rek. jërul ngay ñëwaat ci man. jërul ngay ñëwaat ci man. lu mu la ko bu baax. te yaa ngi koy sàmm bu baax. ndax waxtu wu ne danga naan mag boo nekkee ak moom. ndax waxtu wu ne danga naan mag boo nekkee ak moom. lu ko ñor nga xam ko. lu ko ñor nga xam ko. kon ñu ngi sant bu baax a kon ñu ngi sant bu baax a ñaan yàlla sàmm suñu diggante. di ñaan yàlla nag mu sàmmal ñu diggante bi. ba ëllëg. ba ëllëg ci kanam suñu Tuubaa. ci kanam sëñ Tuubaa. jërëjëf jërëjëf. sëñ bi ñaan lépp tàllal amiin amiin bokki jullit yi bokki taalib yi gannaaw nuyoo bi ñu ngi am mbégte ak bànneex ci taw fii ci kër Cheikh Mahamadul Basir bu sëñ Abdou Xaadir muy sunu xarit di sunu rakk di sunu wëlëre li gën a foor ñëw nag ci bisu waajuram bi nga xam ni sunu bisu waajur laay wax ndax sëñ Abdou ak sëñ Abdul Xaadir sotti ceeg def ci la suñ borom da na boole ak bokk waaye ñu seq ak xaritoo li sëñ Abdou Lahad nekk sëñ Tuubaa lépp sëñ Abdul Xaadir moo taxawi diine ji def ko taxawaay bu mat sëkk di ci di jiite jumaa ji di jiite néew yi nga xam ne mooy ilimaamul al ahya wal amwaat tey muy lu mu ngir bi ganee àdduna ba sëñ bi waxee maam Thierno mu koy wutali dana koo fi day rek dañ koy jéggal ba tax maam Thierno guddal ay jéegoom koo xam nag ba nga gënee àdduna nga nekk koo xam ni ka lay tudd rek yor na martaba comme dajal ñu jéggal ko kon kooku rëy na martaba te kon moom dañ ne man salaa xalfa maxfur xalfa maxfur xofee la ko ku taxaw ci gannaaw imaam yuñ jéggal ñu jéggal la sëñ Abdou Khadre ku ne xam ne ci maxfur la kon ram nañu bari ci kaw suuf ñi faatu tam jiit leen yëpp ram na leen kon nag su bisam ñëwee war nañ cee teew war nañ ci am mbégte war nañ ci am war wane njaboot gi noo bokk sëñ Abdou Khadir sëñ Abdou Khadir nag ak sëñ Abdou Lahat dañoo yàgg wax naa du xam ay trente cinq trente neuf wala quarante années yooyu seeti woon na Sëñ Abdou Lahad Kàbbu Gay àndoon ak mbay ngoom ak ay kilifa yu bari boobu jamono neexut bis bu Sëñ Abdou Lahad gane Sëñ Abdou ba guddi dana taal otom dem ndakaaru wuti ay xéewal yuñ dëkkee ak nganuk suba gi boobu jamono neexut nii bam ñett ñetti fan mu woo nga ngoom jox ko ñetti junni ne ko joxal ma ko sëñ Abdou Khadir jox ko ne ko du addiya du ragal dund du ragal de bëgg dund du bëgg mu ne yaa yaa baax soo ne lan la tax nag nga ñëw wax ma laaj ko tax sëñ Abdou Khadir ànd ak moom mu ne ko damaa bëgg rek mu seereen talib sëñ tu la loolu nag sëñ Abdou Khadir ko la ko waaye bi wàccee lëkkitam noonu la ko seere wat fii ci daara Kaamil kon ñoom seen ànd yàgg na rafet na njabootu sëñ nag ak njabootu sëñ Laat ba tey benn la ñun ñëpp ñoo ñi fi nekk nii ay ñoom sëñ Moussa ak sëñ seex ñoom di benn ca ka sëñ Soñ bu waaye nag sëñ Bass mii nga xam ne moo ñëw këram di jaatum sëñ Abdou Khadre te la sëñ la la sëñ Fall daan wax ku la mujj ci barab xam fa loo fa xamut bu nekkee caatum sëñ Abdou Khadir te sëñ Abdou Khadir bi mu toogee ci xilaafa gi yàggu ci tuut la ci toog waaye day mel ni lam doon motli responsable li nga xam ne wàllu adduna te mënu ko woon duy dox itam day mel ni da koo def ci ci sëñ bés mi mu yitte yooyu ndax moo tax ñu dénk ko kàddu murit gi loolu nag loo dis la waaye rafetal na ko ci li xam ci gis ak ci dégg ndax euh, yoon wi dafa bari bang bang te yàlla dimbali na mën na koo muñ man nag damaa mënta muñuy bang bang te it nit ñi soo leen bëggee jiite foog nga muñ seen i bang bang te mu ngi muñ bang bang yi kon nag yàlla na ko yàlla jàppale yàlla na ko yàlla sàmm yàlla na ko yàlla aar ba lii ñu fa teg ko ci doxam mu àggale ko ni nag daa mënta seere xaritam ndax koo bëgg mëpp boo see dañ koy gis neen waaye nag wa maa sahid naa illaa bi naa te kenn jël lu ma wax lu ma gëmut wala lu ma nar waa ju ma nar moom déetama gënal waaye xam naa daal ji koy sang yor na ko bëriwul lu may bëgg ci lim yor waaye lépp lu xam ne bëgg naa ko dana ca taxaw lépp li sàkku ci may itam nga xam ni da dama ko war a yebal ci kooku mu liggéey ko bu demee du taxaw kon maa ngi gis sama bopp ci li ma bokk ak moom ndax dañ koo bokk hmm? xam ne am naa cee wàll waaye wàlloo nag xëyuma ci dara kon nag danaa ko sant ci wàll loolu mu def ñaanal ko ci te ñaan suñu borom itam mu defal ko ndam ak mucc ndax loolu rek am solo baayam dafa amoon cër ci suñu borom daan dimbali nit ñi noonu mu nekkoon imaamul ahya wal imaamul ahya noonu la nekkoon médecin boo xam ne day faj way feebar ñi bu dee ku yor da koy jënd bu dee ku feebar te bu ñaanee mu saafaraw loolu nag cër bu ko suñu borom may la ndax sëñ Tuubaa day bàyyam dañ day sëñ tubaa nag sa lépp gënu sëñ tubaa kon noonu nga mën a mel kon daal li ma bëgg daal mooy ñëpp seere ni sëñ ba sama xarit ñëpp seere ni sëñ ba sama mbokk ñëpp seere ni li mu yor yéene naa ko ñëpp seere ni du ma ko fakkastal te lépp loo xam ne da koy fakkastal bi moo gisee naa ko nit ñi lii mooy li ma gëm mooy li ma gëm te moom laa fas ci sama xol itam yéen naa ko njaboot sëñ waaye nag da cee raw ndax ni ma def koo xamul noo koy def nam la defa def danaa koy wax lu budul benn budul ñaar ñëpp laa bokkal sëñ Tuubaa waaye nag ni ma njaboot sëñ Abdou Khadre def ak njaboot sëñ Fall kenn defuma ko kon nag sëñ na maa siree ci ñoom ñoom dañoo bokkom ñoom man nga ni ñëpp rek ñëpp laa waaye nag Seex Bass ak sëñ si dañ cee raw Abdou Khadre waaye ñëpp laay xaritoon sëñ sëñ Cheikh sëñ Moustapha nii laa demee ak ñoom waaye nag ñii ñoo ëpp la may demee ko ndax màggal gu ne sama kër la yenn Cheikh ba mu ko defee lay ëpp lay mat fanweer wala ñaar fukki at ak kon nag ku ku ku mënta ku mënta ku mënta fecc te war a mën a tàccu. war a mën a ah. kon nag lii naa ko jàppee tàccu. seere kàddu yu dëgg seere kàddu yu xarit seere kàddu yu soppe di ñaanal nag njabootu sëñ Abdou Khadir gépp di ñaanal taalibe sëñ Abdou Khadir yëpp di ñaanal tam bépp jullit bu fi teew yàlla faj sa aajo zahiran wa batin ci barke sëñ Abdou Khadir asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu allahu rabbul alamin lay tàmbulee man mat julli ci xayril alamin tey tagg ngeen ji ilimaan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 moom nga teg ci sunu kanam nu ànd ak moom liggéeyub sëriñ Tuubaa bii nga xam ne sëriñ bi daf ko teg ci sa loxo nga doyloo ko ci doyloo ci itam ñi mu àndal yëkkatiwaat lépp tegaat ko seen loxo ñu nekk ci say jëwriñ di la liggéeyal ñuy ànd di liggéeyal sëriñ Tuubaa mbooloo moomu nag ñoom ñëpp ñi teew ak ñi teewut ñi ngi maase teg seen kàddu ci loxoy sëriñ Ousmane di la nuyu di la ziyaara ci bés bi nga xam ne noog yow ñoo ko bokk muy bisub Serigne Touba Cheikh Abdoul Khadir Mbacké di bis boo xam ne yërmande la ci xeet wépp waaye ak xeet li koy lay tam ci murit yépp ngir la ci Serigne Touba waxoon maam Thierno ba mu koy sàkkale aw tur te loola mu mel ne mbirum Serigne Touba def dafa nekk loo xam ne lu mu xas lu lu lu xas ba am rek bu bis ba delsee day mel ne day yokk noonee mu ko waxee woon. ñun amuñu sikk sàkka wala lu ñuy nattable ne saabu at bi dellusee it noonee mu doon ràmmee ñam doon dajal ni la bés bii di ràmmee ñi nga xam ne itam ñi ngi ciy ñëw di ci taataan di ci sàkku ay tiyaaba moo tax ñu yëkkati sunuy siyaara ak sunuy ndokkeel ak sunuy ñaan di ko teg ci sa loxo ci turu comité d'organisation bépp ñi ëpp ci ñun sunuy waayjur ak sunuy maam kenn ku nekk jëlee nga ci Serigne Touba loo xam ne nun ñi ñëpp buñ dee tedd tey jii te sonnuñu nekkuñu ci ay jafe-jafe lii sëriñ Moussa Ka doon wax naan sa waay du ñee sa waay du ñee waayi keneen su ñun ñeewuñu kenn li ma waxoon ne it du ñiit gaari ci laax dooti limboy sagar di daax loxoom du daarati ci paax loolu itam ñun ñëpp gis nañ ko ci suñu jëmm te loolu lépp liggéey yi suñuy maam liggéeyaloon sëriñ Tuubaa rek moo ko waral kon nag suñu dee gor sunu dund lépp dañ ko war a delloo ci sëriñ Tuubaa suñu dund lépp dañ ko war a delloo ci liggéeyal Serigne Touba ndax ki tax nga tane koo wërtoon a tane tax nga mel noo wërtoon a mel tax boo geesoo ci say bokk yi nga xam ne xëy na li nga am ci Serigne Touba mën naa am amuñu ko ca da nga gis ne ñoom ñëpp kenn ku nekk ci ñoom am na lu muy xemmem ci yow te yow li ngay xemmem rek mooy li Serigne def ci yow kon sa ngor waru may ngay dellu ci lenn. lu dul jeexal sa lépp ci liggéey sëriñ Touba kon nag ci kàddug sëriñ Ousmane ginnaaw bu ñu la ndokkeelee siyaara la yeesal sunuy pas-pas ci liggéey bi yeesal sunuy engagement ñi ngi lay sant bu baax ci faggul gi nga nu nu mën a ànd di di liggéeyal sëriñ Touba comité bi bépp nag di la seeral sunu cant ñu nit ci jëwriñ ji nga teg ci sunu kanam muy sëriñ Ousmane mu nekk koo xam ne loo doon séntu ci moom ba teg ko ci sunu kanam rek gis nañu ñun ñi ngi ko booleel lu ëpp loola ci moom ci ak dëggu ci ak njub ci ak maandu ci ak lewet ci defoo ñëpp ci xajoo ñëpp ci yaatal ñëpp ci boole ñépp ci boppam ba tax na bu dul doon liggéey bi sax kenn ku nekk ci noonu ëmbal na ko kersa goo xam ne ruus nga mu di la dégg wala mu di la gis walla nga wa loo war a taxawe mu jot te taxawoo ko ngir jëmmam loolu nag ñu ngi la koy seereel bu baax di ko sant di ko gërëm di sàkku nga ñaanal ko suñ borom gën koo dëgëral gën koo sàmm bàyyi kookum xelam ba li muy liggéey lépp mu mën koo liggéey di sant kilifa yi nga xam ne moom nga teg ci boppi kuréel yi yëpp boppi boppi boppi commission yëpp ñoom itam ñi ngi leen di sant bu baax ndax loolu wu nekk ci tegale dañuy wax ne bu ba ci njëkk bu jubee rek yeneen yu ci topp dañuy jub loolu tax na mbooleem comité bi kenn ku nekk ña nga àndal ànd nga ak ñoom ci njàmm ànd nga ak ñoom ci jàmmoo ànd nga ak ñoom ci déggoo kenn ku nekk xalaat bu mu génnee danañ ko càmbar su dee lu ñu war a doxal ñu ànd dëppoo ca andi ko ci moom bu ko càmbaree it lu mu ca wax rek danañu doy kon loolu lépp nag day wane rek ne moom mii ak jubam ak tegoom ci yoon waaye it jëwriñ yi mu àndal itam seenu bëgg liggéey bi ak seenu xemmem ko ak seenu bëgg lu baax kon nag ñu ngi sant bu baax di gërëm bu baax duñu la bëgguñoo guddal wax ji waaye li nekk ci suñuy xol. moo rëy te bari te ñu yéene ko di ko waxee yéen yitam ak xol bu sedd guy di la ñaanal nag yow ci sa jëm bopp suñ borom gën la gën laa tëbb kàttan dolli say xéewal bu baax a baax a baax dolli sag wér te yàggal la fi lool ñu ànd ñu yàgg ànd liggéey Sëriñ Tuubaa bi euh, sunu sag nga sagub yoonu murid yëpp nga sunu mbégte nga mbégteel yoonu murid yëpp nga koo xam ne itam sa yéene ñëpp xam nañ ne yaatu na lool ci yoon wi sa pas-pas itam ñëpp xam nañ ko sa bëgg a liggéeyal Serigne Touba it ñëpp xam nañ ko ni li ñu waxoon léegi itam ci Serigne Ousmane mii lim gis ci yow la waaye li nga yaatale ak ni nga ci boolee ñëpp ak ni nga koy doxalee ci doxalin woo xam ne bépp dafa leer nañ ci boppi ñëpp ñi nga xam ne ñoo ko seq ku mel noonu nag boo ko amee muy sa kilifa ci sa kanam doo mën a def lu may di ko ñaanal suñu borom yàggal ko fi te may ko wér te bàyyi ko gum xelam sant daal dafa mënta weesu cant te kàddu ñi may waxee damaa xam yéene yi nekk ci ñoom. xam pas-pas bi nekk ci ñoom moo tax lu ma baat bu ma bëgg a génne rek dama koy xeeb ngir li nekk ci ñoom waaye nag xëy na sama doy di moo tax du ma man yéene yi nekk ci ñoom te ma xam ko ma mën koo génnee ni ma ko war a génnee waaye lu ma ci génne rek nga xam ne la ca des boo ko ëpp ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñu ngi leen di delloo ab nuyu bu baax di leen sant di leen gërëm bu baax ci yëg-yëg yitte jeeg jaaree nuyoo bi ci sëriñ Ousmane nga xam ne mooy seen jëwriñ te yàlla defet ñëpp maase ci xol yëpp nangul ko taxawaay ma yitte ma pëseefum ba mu àgg nag ci mboolem ñu jiite commission yi yëpp jiite commission yi bàyyiwuma kenn ay ñu topp seen ginnaaw ànd ñoom di liggéey liggéey bi kon ñu ngi leen di jotali cant ak ngërëm ni ma leen ko waxee barki démb rek bi ñuy ubbi liggéeyu màggal gi mooy ki fi nekkal Serigne Touba di Cheikh Mouhamadou Mountakha soññeewaat na ci bu baax ci yitte ak taxawaay wax na ko suñu Ousmane mi mu dégg ndax boobu maa maa ko doon seeral taxawaayam yàlla defit moo xam ko boo wax ci kàddu yu xóot yoo xam ne sax mënees ko wax ci rajo kon leer na ci moom suñu Amadou Moussa rek barki démb moo ko waxee moo ko soññalaat boppam ne ko kon nag joxaat naa la ndigal nga gën a laxasawaat ci liggéey kon loolu lépp ak cant rek la kon suñu Ousmane ñu ngi suñu cant bu baax nii la mbooloo mépp maase ci doyloo nu ko ni lañ la doyloo te euh, doy kaay doyloo moom kenn mënu ko forcer nit ndax nit mën nga ko bëgg yéene ko lépp waaye fexe ba mu doyloo mu yombut ndax loolu ci ay jëf lay doon yow nag yàlla def na bañ la bañ àndee yow ba nag saa suñ xëyee doyloo guñ amoon coono da yokk. kon nag loolu moom bokk na ci li gën a sàmm liggéey bi kon jàpp naa ne taw feex la ju ma Sëriñ Tuubaa defal ndax suñu Tuubaa moom lépp lu mu la jëfloo rek damay feexe ba mu moo koy def kon nag pës bi may séentu bëgg ñu bëgg ñëpp ñu mel ne yàlla def na ko ci te pëseef bi rek mooy li mënta ñàkk man man ngi liggéey bi door ñëw kon nag ñu ngi sant mbooloo mépp di leen xam ne sëñ ni nga ko waxee daanaka sa kàddu yi sax doyoon na. man ngaa ba noppi tontuwaat sa bopp ndax li ma waroon wax lépp daa duggaat ci biir kàddu kon nag maa ngi yeesalaat sama cant yéen ak sa ak sama ngërëm ndax liggéey bi kat lu mu baax baax ak lu mu rafet rafet mu leen nii seen taxawaay tax mu agsi kon nag ñuy ñaan ci barke Sëriñ Tuubaa mu nga xam ku ciy jëf ku ne jëmum rek tax ngay jëf ñun ñun ñu suñ jëmm yi jërul jëf ndax mënaluñ leen dara waaye ki moom jëf liggéey bi tam ñor ko loolu. loo ko ci waay xëyal rek doo ko rëcc bu faw kon nag ñuy eh, gën a suñ soñ suñ bopp di leen soñu gën a laxasaay wax rek te xam ne ki ñuy liggéeyal ku am tawféex di ko liggéey ci loo xam ne wóor leen daje naa bëgg-bëggam loolu tawféex la ndax ñu ngi koy dàkk ci lépp waaye lii moom wóoruñee lu lu lu tëb kon ñu ngi sant bu baax di gërëm di liggéey bi yàgg ko ànd te kenn ku ci nawet la ca suñ borom dool la tëbb la kattan. ak wér di eh, ñaanal suñ alaaji Mbàkke it nga xam ne daa doon jàmbaar ci liggéey bi lool te xëy na àddi yeeg ñàkk wér gi ma yëtu ko ko waaye waxtu na suñ xel ak ciwum ak suñ xol sa rawatina bu jetaay bi teewee positif bi mu daa waxee ak soñña gi ñun ñëpp dañu daa soññu kon nag ñun ñëpp ñu ñaanal ko te di ko ñaanal mu gën fee yàgg di gën a wér di ko ñaanal ñëpp itam ndax yéen ñëpp ay jàmbaar boo doon lim ku ko ci tudd rek. mën nga koo seere ci poste fi mu yitteem te li ma ci gën a yéem nag mooy liggéey bu xasee tàmbali ba bu muy jeex amu ci kenn koo xam ne soxla na ma gis lu weesu ne ci liggéey ba bu amee lu war a suñu Ousmane wax ko ko kon loolu day wane kon li ngeen di jëf xam ngeen ki koy jëfal kon nag moom moom rek ci am solo moom moom mi ñu jëfal ndax am nag pay kon yàlla na nangu jëf ji te denc ñu fu làq fu yàq eggut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 sëñ Abdou Khadir boo ko doon natt danga naan gëm yàlla gu taxaw ci koo suuf la rek gëm yàlla goo xam ne dara mënu ko yëngal yàlla rek la gis gis googu mu gis yàlla moo tàbbal rasulaay ci biir gis googu mu gis rasulaay moo tàbbal sëñ Tuubaa ci biir moo ñu daan taxaw ci wet yépp ñu noddu allahu akbar li muy tekki ñu ko gënoon dégg ci la mooy lan yàlla gën a màgg kooku de moom moom daanaka da ko daan kàlla gi daan daan am lu mat ay bis xam ne kàlla gi ko dugg mu mu di ñu këpp rek mel na baax li bu yàgg daaw des noonu noonu noonu la euh, malaaka fonk jàkka bi defoon na ko lool lool ba tax na képp kum daan seetlu nga ñëw jàkkam di la mu di la gis day am ci yow nit العصامة قن الملامة حبل الكرامة بظل وائي Cheikh Abdou Khadre nag moom nam gépp istixaam la ko dund sëriñ bi nga xam ne moom la ñu sàkk ñu waxtaane ko dañ koy tënk rek ndax luñ ci wax lu ne rek fekk na am na ñu nu jiitu bu wax ko ci waaye ngir ñu xam wala boog ñu yàqu leeral ci mbiri Cheikh Abdoul Khadir moom ñëpp xam nañ ko wax nañu ne mi ngi feeñ ci jamono ci atum junni ak ñetti téeméer ak fanweer ak ak ci hijriya Abdou Khadir mi ngi génn àdduna ñetti fan ci tam xarit Daaru Salaam Ndaam te tam Abdourahmane ñu ngi am di bëgg yëkkati ay kàddu yoo xam ne ñu ngi koy jëme ci kilifa gu tedd ku am cër ci yàlla am wàccuwaay sunu borom ak ci gaañu baax ni muy sëriñ Abdul Qadir Mbàkke ibnu Cheikh al Xadim muy koo xam ne ak dundam lu mat di nafar la ngir ay waare ak bind yu bari yoo xam ne njaboot gi ak ñu bëgg lu baax mën nañ ko ca jële moom nag eh, yàlla mi ngi dogal mi ngi gane àdduna ci daarul alimil xabiir diggante Mbàkke ak Touba barab boobu nga xam ne benn la ci barab yi sëriñ Touba sancoon foofu nag mu tegoon fa sëriñ Ndam Abdourahman Lo ngir muy jàngale alquranul karim ak di fa yare foofee la sëriñ Abdul Xaadir gane àdduna ci bisu ajjuma ñetti fan ci weeru tamxarit 1333 junni at ak ñetti téeméeri fan weer ak ñetti gàddaay yonente bi sallallahu alayhi wa loolu mi ngi tollook le 20 novembre 1914 ñaar fan ci weeru novembre ci 1914 ci la gënee àdduna ci daarul alimil xabir muharram mel ni boo doon taarixal atum jullit ñi ci ngay tàmbalee ndaxte weeru tamxarit la ko olof di wax ndax dafa bari ay xew-xew yu ci yàlla def yoo xam ne ak ay juddi juddu walla yu tolloog bés yoo xam ne ci nit ñu baax ñi tàmmulee ko ci al mursaluuna wala anbiya teg ca ñi nga xam ne yàlla may na leen tur ci àdduna te doon bokkuñ ci na yi bokkuñ ci lanbiyaaw yi def ci it ay ahdaas taarixiya te muy xew-xew yoo xam ne yu am histoire la yooyu yëpp yàlla def ko cee dajale ca dale ca sayduna aadama alayhi salaam ba agsi ci ñi nga xam ne dañ leen tànn ci ñooñu tuddee leen ulul asm muy juróom ñiñ tànn nga xam ne Moussa ak Isa ak Ibrahima alayhi salaam ak Nuux ak sayduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ku ci nekk rek ci muharram bi am nga ci bés boo xam ne su fekkoon dañ koy waxtaane jàpp weer wi ak màggug weer wi ndax lépp lu yàlla di def te def ko ci waxtu tànnal ko weer tànnal ko bés loola day day wane màggug loola te ganek jamono it ganek jamono it lu rëy la ci suñu borom ndax wa salaamun alayhi yawma wulida wa yawma yamuutu wa yawma yubxasu xayya suñ jëlee wax jooju yàlla wax ci alquran ci gan jamono nit ñu baax ñu tedd ñooñu dañ koy daal di man a misaal ci gan jamono sëriñ Abdul Xaadir Mbàkke dañu wax ne kon gan ak jamonoom salaamun saamilun ala dunia wal axira dañ naan jàmm ju daj àdduna la ak alaxira ba ko defee ñu koy yëgalee ku baax ki dafay bal maam Cerno wax ko ne limal daal ndaam soo demee ñoo am nga nga tudd ko Abdul Xaadir biñ koy jox autorité maam Cerno Birahim la sëriñ bi joxoon ndigal ngir mu ñëw ci daal Alioune Xabir jox ko autorité booba nag am na ñu wax ne maam Cerno mi ngi woon Touba di defaraat kër gi sëriñ bi joxoon ndigal muy kër Touba gi fala bàyyi koo ñëw daarul alimul xabiir jox ko tur wi ni ko ko sëriñ digle woon ci anam gu doy waar goo xam ne ñu bari dégg nañ ko wax ne sëriñ bi da ko waxoon ne ko diggante bi koo fi dajeel ñu jégal ko ba tax maam Thierno ci yërmaane ja fu mu doon romb ay nit ne fa day taxaw ñëpp génn gis ko mu doon jàll. te nga dëngal sa danga danga dëngal saw yoon dem ak dikk ndax koo fi taseel bi ngay dem ak bi nga dikk suñ borom na ko jéggal kon nag lam yor da koy ndal kon sëñ bi du ko fa bañ ko fàggul mu doon ñëw kooku nag mooy sëñ Abdou Khadir loolu nag yàlla defal sëñ Abdou Khadir ci gan ak jamonoom loo xam ne lu néew lañ koy dégg ci gan ak jamono xanaa gu mel ni sayyidul wujud sallallahu alayhi wa sallam ni yonent yàlla Muhammad gane jamono nga xam ne dañuy wax ne bés booba ñi doonoon ay kàccoor yu mag ca màkk te bég ci gan jamono muhammad sallallahu alayhi wa sallam sax yàlla dana leen woyofalal mbugal yowmal xiyaam beneen ba ca mooy gan jamono gu way juróom bu tedd wa nga xam ne tax na wali wi gën a mag ci awliya yi nekkoon ci Sénégal dikk ba Mbàkke ne leen kiy wuutu rasulullahi di boroom jamono fii lay gane jamono su juddoo Mbàkke barke dana wàcc ci Mbàkke te duut fi jóg day mel ni gan jamono googu loolu rek lañ ko mën a dëppaleel muy gan ak jamono sëriñ Abdul Xaadir Mbàkke ba tax na yàlla def ca loo xam ne lu rëy la te mooy wax Seydina Jibril alayhi salaam ne ko waxal ma xaadimu rasul ne ko na wax ne gan jamono gan gi dikk am naa ci moom mbégte defal naa ko ki koy tuddi di ko jox aw turam dem nga ba ba muy dikk ku ko teg bët loolu ku ne xam na ne ci ci ci tuut tànk ba nga xam ne mooy leer ga gane ca la ko yàlla def yërmande yàlla dafa tax ginnaaw du baax nit gane jamono daal di waaxu dugg ci biir nit ñi ñu di ko gis waaye yàlla far def daraja ci ka nga xam ne moo koy joxe mu jël loola jël mbub ma summi ko solal ko ko muy xel atu tasrif ku jàng tasawuf xam loolu day fay am defal ko solal ko Seydina Ibrahim muy Ibrahima Mbacke Seydina Ibrahim muy maam Thierno ne ko sëriñ bi ne ko booye boo yeexal say tànk ndax ba ba ngay dem ba ba ngay dellu si ku la fi teg bët wala koo fi teg bët suñu borom jéggal na ko loola sëriñ Tuubaa da ko jottali waaye yàlla mi moom jamono moom jaam ñi moo ko wax te yàlla it boole gan gi dikk ci ganam yi gën a tedd fi moom boole ko ci njaboot ak seexul xadim bis bam ganee addina moom fële ñu naa daarul alim moom la wala fii woowe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 gan gi sa yoon wi na gudd ngir loo dajeel duñ ko tudd yemal xiyaam du safaan Abdul Xaadir jiit ay wax am na ci kuñ ko tudde am ñu jàpp ne eh, Cheikh Abdul Xaadir Jilaani la ndax ci wàllu ruux seqoon nag sëriñ bi lu tax loolu mën a nekk te wax nañ ne it daan na feeñu sëriñ bi di ko di sàkku ci moom aw turandoo am ñu jàpp ne Cheikh Abdul Qadir taawub maam Balla la ko tuddee ndax moom it euh, seq nañ lu tax ñu mën ko koo tuddee am ñu jàppit nag ne euh, Abdul Qadir la tur la ci tur yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nit ki yeneen tur yi nga xam ne wér na ne mënuñoo wax ne kenn lañ ko tuddee loolu nag laa jàpp ne moo gën a dëgër sax nag nit ki Abdullahi Abdurahman yi amoon nga xam ne jaamu bi yàlla daal la te loolu bokk ci tur yonent bi sallallahu alayhi ginnaaw bu mu nekkee doomi Cheikh Ahmadul Xadim te Cheikh Ahmadul Xadim moomu di koo xam ne kii danañu wax tuuti ci li nga xam ne moom lanu ñu jiitu doon xamal ci moom muy jëmm joo xam ne jii dafa am lu mu waxal boppam am lu mu lu ñu wax ci moom ba mu waxalee boppam ne mallaka ni duniyaa wa uxra samadu maa indahu lixtaarahu muhammadu waxal boppam ne laanat liyal quluubu wal abdaanu tuxibbuni lbidaanu wa suudaanu zalika fadlullahi yutihi alladi yashaau wa qaala li qulbi way jur bi doon ñoo xam ne danañ ci ñëw ci ci ci mbaax ku ku jógee foofa nga meloon neneen mooy jaaxal nit waaye nga baax du jaaxal kenn ndax moom xam nañu Sëriñ Tuubaa mooy way juróom doy na ci misaal ci baax ak njub waaye soxna Aminata Bousso mii way juróom wu jigéen nit mbàkke ak mbusoobe ñoo ko seq te mbusoobe ak mbàkke seen cosaan xam-xam la ak diine ak njub fu ñu mas a nekk loolu lañ fa nekk kuñ mas di jaxasoo loolu la ñuy jaxasoo yow bawol ak jolof gi ñu nekk da kuñ fi woon Fuuta lañ jóge woon waaye ñëw bawol ak mbaaxu njub moo tax ñu am focc waaye ñu fa am dañuy wax ne maami eh, mbàkke mbàkke yi bi mu wàccee jógee Fuuta ñëw mbaax gañ gisoon ci moom moo tax ñu yaatal ko fa ba mu am fa buur ba may ko soxna loola moo fa laal ba moom maanaam feeñ ca loola. di koo xam ne tey mën nañu wax ne bu ñuy lim Sénégal kër yi mu gën a mag mooy seen maam waaye mbuso bi it noonu la loolu lañ fa indiwoon ba sëñ Moussa Ka ci benn bayta mi ngi wax ne diine gore leen te jubóog lam tooba kon diine ak gore kuñ ma sa jotale rek yooyu tax ñu jotee yow bëgg sàmm seen diine ak seen ngor. fu mel noonu nag ku ñu ñi mu mel ni nga mel du jaaxal ku xam sëriñ bu xaadir nag ñoo ñëpp meññ li mu sëriñ lu bari la sëriñ bee way juram waaye maama ma nijaayama ana yu bari sëtub maam Balla sëtub maam Mor maam maam maam Ahmadou Soxna Boussa sëtub maam Ibrahima Awa ña nga ci askan bi moom nag bi mu ganee jamono ñëpp xam nañ ne sëriñ bi bég mbam ci defoon waaye fam ko teg ak ndigal yam ca joxe woon te mooy ci barab booba joxe ndigal ci ñuy jàngal ko xamal ko loola yàlla dimbali na ko ci ndimbal loo xam ne ñi ñi nekk jamono ñun suñ joonu tey ñëpp xam nañ ne sëñ Tuubaa yàlla sëñ Abdul Xaadir yàlla dimbali na ko defal ko ci xam-xam loo xam ne ak alxuraan euh, néewaana ku ko yàlla defal ndax am na loo xam ne ak may la mokkal alquran ñëpp mën nañ koo def waaye xiraa te mooy njànginu alquran ak xeetu xeetu mokkalinuk alquran ak dégg gi ko yàlla defaloon ci alquran wuutewul ak dégg gi abdullah ibnu abbas amoon ci alquran wuutewul ak dégg gi yàlla defaloon sidna omar ibnul xataab ba mujj yàlla may ko mu nekk muhaddas moom Cheikh Abdou Khadir ndaam gi la nekkoon ndax way juróom soxna Aminata Bousso sëriñ bi moo ko fa yebaloon mu nekk fi bi mu demee ba mata dal jàng sëriñ bi daal yónnee ñu indi ko njaareem sëriñ bi bindal ko ci alluwaam am ñu wax sax ne moo ko dalal boole ko mam xawa bu sa mu delloo si ko ndaam ci sëriñ Abdourahman sëriñ ndaam di ko jàngal ba te loolu mi ngi amoon xam nañ ne bi muy dal jàng ci weeru gàmmu la mille trois cent quarante 1350 du sori novembre 1921 ci lañ ko indi njareem sëriñ bi ñaanal ko mu ñëw ndaam tàmbali jàng alxuraan bi fi sëriñ bi ñibbisee Tuubaa nag ci la ko sëriñ Mbàkke bu sa jële ndaam yóbbu Gédé boole ko nijaayam yi ñuy wax sëriñ Ibrahim Njaay foofa la àggalee alxuraanam bind kaamil ceenam gën a mate sëriñ Mbàkke nag tàmbali di ko jàngal xam-xam ab diir boole koog doomam sëriñ xasan nga xam ne lépp ci téere yu mag yi sëriñ xasan moo ko jàngal am na fi ab diir nag mu dem njaaree mit jàng aslëf ci sëriñ Mouhamad dem waaye yàggu fa mu dee si war gédé waaye moom it di Cheikh Abdul Xaadir sun boroom xaasal ko ci teel am al istiqaamatu qad ataahu llahu alxukma walhadiya sabiyan wa huwa lam yukallaf bihi dafa jóg rekk sama borom teg ko ci yoon wi mu ne nocc suñ borom sol ko xam-xam ba mu fees del mu jóge noonee mu jóge rek nga xam ne ña ko xamoon ci at yoo xam ne ati sayir dafa ndawe ak ñi ko xam ci bi bejjaaw nekkee ci boppam dara dolli ko ci ci wàllu jub ak melo bu baax dafa am jaam ñoo xam ne yàlla du boyalul seeni cër daf leen tënk ci lim bëgg Sëriñ Abdul Xaadir yàlla daf ko boole ci jaam ñi nga xam ne xayyada aadaahum fii ma yurdihi tiilata xayaatihim tënk na seen làmmiñ seeni cër ci luy gërëm loo yàlla seeni guddi ak seeni bëccëg ba nuñ delluwaat ci seen borom loola doy na sëkk ak may loola nag yaakaar naa ne ku xam ci ni ñuy waxee ci diine mooy tudd listixaama ko ci ay yu bare bari yooyu mu ràññiku nag la ci gën a fës mooy baat bu siw boo xam ne daan na ko faral di wax lu bari nga xam ne mësta jëflante ñaare wala waxtaan ak mbooloo mi bay bu bay loowu leen ko xel mooy li ñuy wax listiqaamatu listiqaam mooy jub daan na ko daan wax da ngeen fonk listiqaamatu listiqaamatu nag mooy jub listiqaamatu mooy diine sëriñ bu mag bi way juróom nee na wa axbaru bi anna al istiqaama nihaayatu salaaxi li ñuy wax baax bu baax yam mi ngi ci am istiqaama karaama ba karaama yem ba jeex mi ngi ci am istiqaama te wàccoo ko benn yoon lu neex a firi la dañuy wax ne tegu ci yoon bañ ko wàcc benn yoon mooy karaama gi gën a rëy ci karaama gaa yu baax yi ndax adduna ak saytaane dañoo bari doole. kon listixaama mooy li gën a am solo ci àdduna ndax moom ngay wax di ihdina siraatal mustaqima moom rek la yàlla bëgg julli bi di ko répété ci ràkk bu ne ihdina siraatal mustaqima yàlla yàlla nag ma teg ci siraatal mustaqima te dégg ngeen li yàlla wax li sëñ Tuubaa wax ne wa axbaro bi an listixaama nihayatu salaahi wal karaama nee na ki tege ci yoon jub kocc nee na bu ñuy waxi karaama kookaa am ndax la nit ña di jàdde ci siraatul mustaqim di nekk ci leneen lu leen sunu borom dénkut ak di woote woo moom léppam yàlla defal na ko loo xam ne su ko wane woon jaam ñu topp ko du ko woote woo du ko def dara waaye nag yàlla dana ko defal loo xam ne du ko defal ñeneen ñi ci des ngay dund ci àdduna gàllankoor yi bari yi mucc ci moo ku fexe ba mucc ci rek mbërëm moo tax benn xakim waxoon ne euh, du du du du lu yéeme bul yéem mukk nit ki daanu ki alku lu ko alak yi alake ci adduna daa fi bari ki jër yéem koy mooy ki fexe ba mucc ci yooyu la taajaban min haalikin kayfa hawa bal faajaban min saalimin kayfa naja Cheikh Abdou Khadir nag moo tax listixaamatu mu jëloon ko kon mooy diine fi la mbaax yam feeñal karaama bi ci gën a màgg mooy nga tegu ci mu siraatal mustaqim musa ko wàcc bi nga duggee adduna bi nga ko génnee muy karaama gën a mag ci karaama gu waa ji baax daf moom nag loolu bokk na ci li mu séy woon. ni ko daan firee nga xam ne istixaama daa wax ne jub moom nit ñu bari mën nañoo jub ab saa bàyyi waaye istixaama moom dangay sax ci jub sax ci jub moom taxoon na moom ñu adressé ko moom xam ne ni mu doon diglee istixaama noonu la ko doon doxe moom moom moom Euh, euh, ku ne xam na ko ci loolu waa kër sëñ Tuubaa moom ñëpp a yem ci wet googu sax ci jub lañ def waaye nag dafa bëggoon ñëpp maas ci loolu ndax jub euh, manees na ko waaye jub tey bu subaa nga dang itam jëriñu dara jub moom li ci baax nga sax ci dàkk la ko taxoon gën koo mën nag gannaaw bu maay ak suñu boroom nag mooy lu muy lu lay def ni ko mënee la koy defee tey doontuñu yaafus boo xam ne tuuti lay def lum saxal lu ne da koy saxal bu xëyee bu xëyee ñi nga xam ne gone yu tuuti yi nga xam ne dañuy xëy xëy si euh, euh, di di siyaare si gone yu tuuti yi lay njëkkee fi moom la ñu naanee kafe booy naan kafe képp boo bëggee naanee càmmoñ dalay wax jëlee sa ndeyjoor boo bëggee fa mburu mi e, lekkee ko càmmoñ dalay wax fabal sa ndeyjoor boo toogee dalay wax ni ngay toogee listixaamatu boobu nag ñu bàyyi xel ne njariñi àdduna ak àllaaxira ci nekk borom bi nee na wax law istaqaamu ala tariqati la asqaynaahum maan gadaqa nit ñi buñ tegoon ci yoon ndox dana wàcc ba doy sëkk kenn du jàmbat mar kon mooy xolub diine moo taxoon mu yamale woon ci daanaka dénkaanam doon ko dund euh, daan ci woo nit ñi waaye nag doon ko dund. istixaara moom kenn bëggoon moom dafa dafa dafa dafa réglé woon mbiram moom man nga mën nga nekk ci Ndakaaru bu nga xam heure bi nii sëñ boo dee ma nga ci nangam te dara du ko soppi. am ku kon kon kon kon kon ku neexaroon nekkal la dafa dafa nos ku ne xam na ne sëñ Abdou géej la woon ci loolu. ba àgg ci ak tegem ci siraatul mustaqim te mooy lim fonkoon daan ko woote woo daan ko dugal ci biir biiri ñaanam ba noppi dugal doon ko boole ci ndigalam ndax bi yàlla dogalee mu nekk seexul xaddim wutu ko ci place bi yaakaar naa ne na ngeen am listixaama la wax tey mu daaranteeg ñi yàlla teg ci seen kanam xool ñaari baat yooyu tege ci siraatul mustaqim mooy bañ a ëppal bañ a istixaama bi mu daan digle moom la dund ba ni fi jógee moom la def ci njabootam itam ku mu moom la def ci yow mépp mbir mu muy jëf nag ko sallallahu alayhi wa sallam daan jëfe ni la koy jëfee ci diggante wax ak jëf sëriñ Abdul Xaadir ku dund listixaamatu nag am na fu ko bi leerle mooy wala takun mufarritan aw mufrita bal istaqim fi sunnatin wa aqsita mooy bañ a bañ a ci digg bi doomu aadama dara tegu ci yoon saa bu jengee ci jëm jenn wet bu ëpp rek wàcc na duñ ko jàppeeti ku jubal kon istiqaamatu mooy jubal bañ wàcc yoon loolu la yàlla di doyee jaam ñi xam nga dañuy wax ci mbir ci àdduna yépp ci euh, mat li mu doon ki mat li mu doon mooy li gën a mat. di di nga dem isaama kenn mënu ko jugal bëti lu néew néew am na bis jamono yoo xam ne bi eh, yooyu téléphone yi wëndil door xew dafa génn ci dafa génn ci néeg bi toll tolloog téléphone bi ci bunt bi fekk saal bi kenn néew fi mu gën yëpp jàkka ja téléphone bi ne kar mu ko yëkkati ko mu ne ko ana kooku mu ne ko mu ne ko mu mu ne ko damay julli ji de daanaka képp bañ julli jee ñëw mu mu ne seet leen gouverneur doon foote xam dem na am déet xam nga kon kooku kon amut amut amut soxla ci wax ak gouverneur yoroon càkk jeeg ko ñor daal moom xamal naa ko ci mbiram. lu wax bari bari bu ñu xasee noddu allahu akbar li muy tekki ñi ko gënoon dégg ci la bokk. mooy lan yàlla gën a màgg moo gën a màgg lan lu dul moom kon baleen li ñuy def dem julli ji moo waral fu ñu mës a dégg ak noddu jàkk ji la ne wax. ku ngeen dégg mu tudd leen ne Sëñ Abdou Khadir noddu nañ wala mu jóg jëm jàkka ja ma dab ko di ko wax soxla te naawaluma la waxul lu wér lu nit màgg-màgg nag bu xasee waaj jëm moom boo ko nee diw ku mu mën a doon du du tontu bu la rusee bu la rusul nag dana la jànni moom ndax dalay mel ni lay jàppe seytaane su li yàlla santaane yow da ko bëgg a fànq ba du ko def kenam ko def bëggee foofu la àggoon. musta ginnaawal jaamu yàlla. fonk gi mu fonkoon juróomi julli juróom te xam naa bis boo xam ne dama doon tàngal kafe naa yee yow bu may bu may dëbbu dajante ñuy salaatu mën na naa gaaw àggal balaa sañ bee génn ndax ma mën na àggal bala balaa génn ma dëbb ba noppi bu may dëbbu yàgg ci digg mu ne tëll di dem ci jàkk ji ne ma xanaa da nga déggul nodd yi man ko àgg ah mu ne bu ëllëgee soo déggee teg nodd lépp lu mu la fekk nga di ko def na nga ko bàyyi ba julli ba donte dara fekk ngay jàng alxuraan. bari loolu nag nu mu feeñee tàmbali ca tënku gi mu tënkoon ci diini. danaay faral di wax ne bokk na ci li ñu mën a jàng ci moom ni yàlla bëgg ab jaam mel ni sëñ Abdou Khadir wane ne mën naa nekk xam ñu bari ci ñun jàpp rek ne yàlla diglal kenn mënut a yëpp waaye foo mën a yemee waaye nag tegu ci yoon xocc doo wàcc benn yoon daal wóor tamit mënut a nekk ah kay am na ñoo xam ne ñëw nañ àdduna ba génn ko mosuñu wàcc yoon. Sëñ Abdou Khadre ñu la bokk loolu mooy istiqaamatu tegu ci yoon yi mosoo ko wàcc wane ne kon mën naa nekkit nag góor góorlu ñàkk yitte ak am yitte fi ne pas-pas bu dëgër ak bu woyof fi ne loolu loolu la wane ci ak dund ci jëflanteem diggam wuute waxtu te it du julli fudul ci jàkk lu yéeme wuute waxtu te du julli fudul ci jàkk biñ nekkee fii waxtu wu ne mooy jiite ci jumaa jàkk ji waxtu yi juróom waxtu wu ne mooy jiite ci jàkk ji lum taw taw lum liw liw lum naaj naaj mooy dox dem julli ci dellusiwaat loolu la daal santaane itam biir kër gi daan def bu njëlee dana ma yeyal ñëpp ñu yee ñëpp ñu julli ñu war dem ci jàkk yi dem ci jàkk ji ba taxoon na nit ñi loolu lañ miinoon ci moom maanaam boo bëggee say say wax ak neex ci moom sax mooy dangay doon nit koo xam ne kii ku fonk lislaam la di ko joggi ci tànk sunna bu ko defee daanaka moom ab xaritam ngay doon moom ko koo xam ne noonu xam na ko si ab xaritam ngay doon. beneen ba ca des mooy waajal ndigalul yàlla bu waxtu wi dikkee mu jooxee ko na ko sunu borom bëggee te wax nañ xam-xam yi ba noppi nam koy defee mooy wal muqimina salaat nga xam ne ñi nga xam ne qad aflaha almuminuun lasinahum fi salaatihim xaasiuun muminuun day wax ne jullit ña de texe nañ texe gu wér goo xam ne yàlla da ko fet dëgëral ko ne ko ñan mu ne ña nga xam ne seenug julli ci xol lañ koy njëkk a yëg ca lañ koy gën a fonk ba mu feeñ ci seeni cër sëñ Abdou Khadre boo ko jàkk xam ne ab jullit a ngi nii loola lu ko waral mooy li ne ci xol bi la yàlla feeñal ci cër yi moo tax aw doxinam loola mooy listixaama moom loolu moom doy doy doy doy doy na roy waay ci tegu siraatal mustaqiim sori gi mu sori ci borom nag moom ak li ko suñu borom defal ak jubóo gi mu jubóo jubóo moom daa dem ba àgg ci góor yàlla yi nga xam ne seeni noo la isaab mooy seeni noo bokkut ak jaam jaam yi nga xam ne eh, seeni jëf la ñuy isaab te loolu daa am ñi nga xam ne suñu noo la ñuy isaab kon kooku bokk yi jubóo gi nga xam ne jubóo nag borom nag rek moom mënu si mënu si koo xëy moom mënu si koo lépp lu mu jublu rek yàlla mën na def buy taw buy sedd dégg nga xeste boobu mu xëy noonu ba. ba ba ba ba ba ñëpp jaaxle mu génne pare solam bi wuti ak jàkk ja mbokk di wax ne wax taw bi nangam mu ne ko mbubb muy tooy moo tane mbubb muy lakk te ku taw tewut ngir yàlla lakk sawara mën laa lakk loolu taxoon na ci istixaamar ci jàkk kenn fekk ko ci damay faral di wax ne bokk na ci li yéeme sëriñ Abdou ci jamono mu xamee sut jàkkaam inaay yoo xam dañ naan tey ñëw na wala am na ngànt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 wàllu jaamu yàlla it musu ko musu yaa def masla fu ñu nodde day mel ni koo xam ne ki dafa tàggoo sagoom Cheikh Abdou Khadir bokkoon jàkka la daawut julli mukk ci lum néeg ci lul ngànd jàkka dara julli lu taw taw taw taw lu ngelaw ngelaw ngelaw na dem jàkka ja su ma saa ba ba yére yi bu ñëw mu ne leen mu ne nu xus taw de mu gën xus ci xal xus cib taw mu gën xus ci xal. ku ne xam na ne li ko yàlla jaraloon bakkanam daawut fekk neex neexu bànneex walif ndigalul yàlla mukk ci àdduna moo tax fu ndigalul yàlla dikkee xoolatu ci coono bi yaram du taw du xiinu ngelaman du tàngoor. booba fàtti na jëmm ji waaye sunu borom rek la gis ndigal yàlla jàpp ne nag moom rek nag la nit ñi di xoole sëñ Tuubaa ndax su teggi woon yoon ñëpp mën nañoo tegg yoon. daana wax ne di ngeen fonk jàkk yu baax ndax sëñ Tuubaa kat bi muy sañ ci dëkk bii jaamu yàlla ak liggéeyal si xaadim xaadim addina Rasulullah moo tax mu sanc ko ba dafa jumaa ju nii. yéen sopp rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ñu baax di boroomi xam-xam melal nañ ko ci cër bii nga xam ne moom la seddoo woon ci Serigne Touba muy imaamatu gi imaami Serigne Touba ci jumaa ju màgg ju rëy ji kooku mooy Serigne Abdou Khadir Mbacké di imam ratibu Touba mooy ñëw ngir jiite julli jumaa ji yakunu musliman ya zazaman nabatana bi afdalil iman waltan bay jamia bil amani abisana bi wa bil islami faltafasi kulla anil marami qaddamta والأنبياء ورسل يا من أمدا قد الصلاة والسلام حبدا لهم كما قيده من لم يبدا بكو سونو بروم دا فاي مو نيك امام سيرن عبد الاحد مكي tànn ko jox ko jumaa ji ginnaaw Cheikh Modou Fadl magam génne àdduna radiyallahu anhum jamian 1968 1990 juróom benn ajjuma jëm juróom ñaar la fi sëriñ Abdul Xaadir jiite woon benn bi mooy ajjuma ji jiitu mu wàcc bu liggéey ñeent wala juróom yi mooy bi mu dee mag 1976 diggante novembre ak décembre ay 8 7 novembre wala 14 décembre soriwul foofu mooy diggante boobu la fi jiitu woon jumaa ji. waaw ajjuma ji moom bi bi bi ci waajtaay rek ci ji mu jóoji rek li julli julli wala wala wala may aji mais lu loolu rek mooy moo daa jiite. loolu du wax ne mbaax rek la mbaax kese la waaye cëru jagleeg suñu borom a ngi ndax lan nit dina baax bu baax jeex waaye wéradi dab ko tey du mën a julli ji ndax daa wéradi tey du mën a julli ji ndax daa tukki wu ne ci soxlay àdduna te yëpp yàlla nangu na ko dina ko jàmbi waaye moom soxlaam moo doon buy tukki yëpp gaaw lay xëy bal xam ne seen mujj bisi ndax faw bu ajuma dana jiite jumaa ji ñaar fukki at yu tegal nga jiite ko manqué yi ñu ci xamoo yooyu ñu la wax te loolu la ko waral. loolu jagleeg suñu borom ci karaama yi ñu war a bindal waa ju baax ci la bokk te loolu suñu borom defal na seen boxaabir te loolu noonu mu kon defee ci jumaa ji noonu la ko defee ci jàkka ji naan ne nga xam ne fu mu masa ne këram goo xam ne jàkka fa ne dëkk bu mu ci muy baax baxdaat muy bustaan fu ci nekk jàkka fa ne ci penc ma lay def jàkka ja fu mel ne bustaan sax la ci war a jàkk ci daa xaw a sori daa xaw a kër gi waaye mbooyee meeg naaj weeg sedd bee ci yam faaw bu julli jotee dañ génn jiite mbooloo mi dellu si loolu mooy dëgg-dëgg yi listixaama ci diggante nit ki ak boromam. ba xasee aju ajuma xasee ñëw amatul benn yitte bu dul bu dul waajal ajuma bu onze onze rek tàmbali na tàmbali na waaj taay ba bu waxtu bu jotee fekk ne mu mu toog ci saal bi di nekk waxtu bu waxtu bu ne tàgg rek mu ne mu ne ñokket daal di wuti jàkka ja jullikaay ba. فلا تراه العيون وتفرد في شهرة كماله فلا تعرف له الظنون أمره سبحانه وتعالى بحمده يستجيب به الحامدين وأشكر بسجوده تقوى به العيون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العالم ما كان قبل أن يكون وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله جعله من دون تصرف به الأنبياء والمرسلون اللهم فصل وسلم على آله وسلم الساعة مسام الدائم ثلاثين لا يوم يبعثون أما بعد يا أيها الناس ما في حجة التي أنتم عليها عاكفون تحمل الله شكل جمعة تعودون معرضان فتحسبون أنكم في الدنيا مخلدون أن تترحمون أنكم لا تموتون ولا تبعثون إن الأنبياء وإن الأولياء وإن المرسلون am jarbaatam bu bari xam-xam boo xam ne bii ku ko jege la def ci moom ginnaaw bu mu fi jógee euh, xasida gu rafet waxa gi tudd na ci ci jikkoom yi ak meloom yi ak melo lu lu lu doy sëkk dafa wax ne Sëñ Abdou Khadir di bu fi jógee jumaa yi jooy nañ ko rawatina jumaay Tuubaa mu gis ni keroog bu mu àdduna tur yi siiw ñu naan imaamul ayima alaaji Maodo Sylla yal na ko yàlla yërëm nekkoon imaam grande mosquée Dakar moo ko tuddee woon moom mooy ilimaani grande mosquée xam ne mën naa jàpp ne moom officiellement mooy imaamul ayim waaye nee na Sëriñ bu Xaadir imaamul ayim ndax mooy seen ji.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 ñi jaay li naas imaam te imaam lu jafe la du ko ñu jiital rek bu julli jotee mu julli waaye imaam mooy koo xam ne dangaa mat sëkk doy sëkk nit ñi te doo def ak doyadi te doo des te nit ñi dañ lay roy te duñ la dab ndax lu ci ne da leen di gën a farlu njëkk leen ca jiitu leen ca di leen ca taxaw ñu di la ca roy loolu mooy mooy mooy mooy imaam. taxoon na it boroomam seen diggante dara dox fi. ku mas a jaaxale mbaa nga jàq boo ko tàllalee bu boo ñëwee dëkk ko say loxo bu la ñaanalee su boobu noonu fekk ko ñaan ko bu baree bari tey ñoo xam ne jaaxle nañ dégg ba seen ci seen wér-gu-yaram mbaa àdduna ñu tegtalal say du xadir nga mu tàllal loxo mu ñaanal la nga dem ma faju nañ cee joxe misaal yu bare bi nag sax gim saxan ci farata yàlla ak sunna rasulullah ko booleeg dara ci la sax ba suñu borom defal ko li mu ko defal bokk na ci fonk gi nga xam ne fonkoon na ko sunna ñor na ko ñor na ba te mu toog ñu wax man de sama lépp ci sunna yonent bi laa ko laa ko teg ci laa bi nag doon na koo xam ne wàllu jaamu yàlla am boo ko daa xool day niru woyof waaye boo toppee ci moom da xam ne diis na lool ndax loo xam ci moom na nga ko xamee rek ñala mag noonu lañ ko xamee lu mën a def lu muy def lu ne na ko yonent bi daan defee rek la koy defe ndax da dadaa wax ne looy jëf lu ne boo ko jëfee su boo ko jëfee ci sunna seytaane du ci amu yoon maa tax Sëñ Abdou Khadre moom tànkam tànkam tànkam mu ngi tegoon ci dégg Rasulullah sallallahu alayhi wa kon alladina amanu billahi wa rasulihi mu gëmoon yonent yàlla topp yonent yàlla moom ma toppin woo xam ne da ko toppoon toppinu teggi tànk ma teg fi sama tànk lépp loo xam ne xam nañu sunna la xeebu ci dara lu mu ci mën dana ko ci def mën naa ci def solo mënut dundu gi ci lépp nag sàmm listixaamatu si bi xaalis jafe naa fekk oto sax bu ci dugg xam nga lislaam day santaane tànkum ndeyjoor nga jiital imagineel kuy dugg ci oto dugg ci buntu càmmooñ buntu ndeyjoor war a jiital sa sa sa tànkum ndeyjoor du du jekk rek waaye noonu la def ginnaaw najoor la lañu war a jëlee dana ko jiital mais day mel ni ku dugg ba mel ni ki door toog ci su ngir ngir istixaamatu gu mat jibaam yi yi sax nañu ko yor mooy ab seetu moo daan ci jibaam. man man man man xeeti ko sax ak ak ak ak watu ak jartu ak seetu lépp. ak ak ak saatu yoo xam ne yeneen ba ba daan ko da ko da ko daa yor man naa ko ba tey jarte ko ba tey yor jartu di ko jartu ñi xam ne yeneen bi daan ko def wala xam xam naa ko ci yoo xam ne yi daan ko def xeeti koori ngàtt kay itam yëpp yoo xam ne yeneen bi daan ko def moom mi daan koy def nisfu saabaan eh, kastu rajab yoma eh, yoma tarawiya yoma arafa yoma asora yëpp daana ko woor gën di yonent bi daana ko def yooyu daf gi nekk ne fekk naa ko ba tey seex jiili yawma tarwiya daana ko woor woor arafa yii yëpp nag nga ba fa te naa man yonen yonen ba lum saxaloon seex jiili def ca danaa ci lim lu tuuti man su yu dëgg nag la waan ay waxam ay jëfam ay yëngatoom ay jëflanteem lépp da ko daan teg ci ni ko yónent bi daan defee loolu moo tudd sunni yi lépp lu muy def nag ci sunna la ko teg ci diggante wax ak jëf am na bés ci Tuuba may jàng euh, xasaayit boo mbooloo mi ci saal ba ca Touba bi may jàng jublu penku mbooloo mi dima man ma leen naa ma yow yaa ngi nekk ci jàkkaarloog jumaa ji di ko woon ginnaaw di jublu penku di wax a wax wax a wax ba ma ba ma wëlbati bi ma bi ko di jublu jàng yàlla mu ne ci biir ba mu ne tël mu ne ku ku jàng na nga jublu penku. li ëpp ci jotaayam toog jublu la ndax jublu xibla la. ni mu demee woon nag doon jaamu yàlla di jaamu yàlla di bu yonent bi sallallahu alayhi fekk ko fi mel na ni. da cee am ndigal ci wax ko waaye lim ko gis bari na waaye fii moom ba mu amee moo waxal boppam ne yonente bi sallallahu alayhi wasallam ak i àndoom fekk nañ ma fi. ndax yonente bi sallallahu alayhi wasallam moom du jë du du du du jëm caaxaan gént gis ko jafe la. sakkantuma koo xam ne dangaa dem ba dereel ku jóg jaxran mu ñëw mu xam ne moom li ko yonente bi wax sallallahu alayhi wasallam wax du ko wax mbindeef. waaye ba mu xëyee la wool sëñ Modou xamal ko na ko àggal ca barab boo demee lépp looy ragal gis ko fa loo bëgg ñoo di ko fa moom lu njëkk njëkk yëpp loola waaye jëpp aaj yoo xam ne suñu borom dogal na jàmbi am ko moo xam géñ ne wala ñoddi mu jëlal ko jóg ñëw suñu borom mën na ko jaa moo xam naa ci daal di jox sëñ Modou mi ko mu demee mu mag mu dem siyaare mu xamal ko ne ko nanga fa ñaan la nga bëgg te dàq fa la nga ragal ba sëñ Moodu ñëwee ñun dongo yi noonu lañ ko waxee ñun ñëpp kenn ko ne dem dem siyaare ji. benn bi mooy listixaama ci la sëriñ Abdul Xaadir nekk ba yàlla gërëm ko yonent bi salaa salaam gërëm ko way juróom bu tedd ba gërëm ko lay seerase mooy fonk googu mu fonkoon doxinu rasulaay ak definam ba tahajjud na layli gi yàlla waxoon wa min al layli fa tahajjad bihi naafilatan lak naafilatan ada an yabxasaka rabbuka maqama mahmuda jooju suñu borom waxoon rasulullah te su guddi jotee mu taxaw di jaamu yàlla ba léeg-léeg a àgg ci tànk yi di tële soxna Aysa naan ko yow de ma am nga ngànt ndax yàlla jéggal na la say bàkkaar yu njëkk ak yu mujj mu ne ko afala akunu abdan dakura simdu xaadir loola da ko daan def ba wax nañ ne néeg bi mu ko daan defee kenn du ko ko defal moo koy defal boppam di jaamu yàlla guddi ba rasulullahi fekk ko fa sëñ Balla Jatara mii di Ilimaani Mbàkke moom waxta mi ngi dund yàlla na yàlla gën a yokk aw fanam nee na dafa ñëw nuyu si rasul Sëriñ Tuubaa fekk ko ci Baxdaad si Abdul Xaadir Mbàkke mu ne ko sëñ Balla dugg leen ci néeg bi fekk na ma biig yàq satan laa mën a ma <laughs> noonu la ko waxee mu ne ko sa leen ci xayma bi ziar ndax rasulullahi fekk na ma fa biig ak ñam àndat daan ne ko nag yàq satan laa mën ma nii may toogee di jaamu yàlla di ñëw lañu waaye doonul ne dama tëdd di ko gént wala déedéet kon kooku ki nekk siraatu mustaqim ba ka doon woote siraatu mustaqim fekk si la loolu bokk na ci yi nga xam ne yàlla teral na ko ki nekk ci siraatu mustaqim ki nekk ci listixaama li ko yàlla defal te du ko defal jaam ñu bari yaakaar naa ne gis rasulaay téere yi bind sax boo demee ci lu mel ni zabul ibris ak yeneen téere sharif albakri yoon yooyu dañuy wax ne ñi gis yonent bi gis ga wér ñu néew lañ ñi ci lim kon yàlla teral nañu ko foofu ni mu ko terale woon Serigne Touba loolu it mooy wane maqaam moom nga xam ne doon na ci Serigne Touba foofu. ñu ngi taalib yi. ni ki taalib yi itam. Eh, li ma leen daan dénk moom laay dénk ba tey. li mu leen daan dénk. démb ak barki démb moom la leen di dénk ba tey. moo mm-hmm. di ñu sax ci jaamu yàlla. moo di ñu sax ci jaamu yàlla. ci sunna. ci sunna. sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. tey wattandiku ak tooñ. tey wattandiku ak tooñ. te sax ci ak jub. te nga xam ne ñoom la yàlla dénk euh, ñoom euh, xam ne ñoom la yàlla dénk ñoom adduna bi. te ñi nga xam ne ñoom la yàlla dénk mbiri adduna ji seen kilifa itam. waaw ñoom. ñeen defal ñoom daara ba ca gën ba gën a rafet. waaw ko. Mm. te suñ suñ diine ci réew ba ñu ñoom nee na na leen itam lépp loo xam ne soxla nañu ko te nga xam ne suñ diine terewu ko ngeen ànd ca ak ñoom lil Mustafa nawaytu ma yujaddidu sunnatul xarra inni ahmadu ñim daan yare it moo képp koo xam ne ki dangaa sukk jébbalu ci moom da wax na la na nga góorgóorlu ci jaamu yàlla tey liggéey tey wattandiku tooñ. ñett yi la joxe digal daan ni leen ko firil jaamu yàlla mooy tax a mucc bu ëllëgee nangoo góorgóorlu ci liggéey fii ci àdduna mooy tax am teraange àdduna tey bàyyi tooñ mooy tax a mucc ci àdduna loolu doon lu leer loo xam ne gàtt na waaye ku ne mën na ko dund te doy na ci ngir nga mucc ngir nga jariñu àdduna ak àllaxira ñu ngi sax ci liggéey. jaamu yàlla te wat na ko tooñ dégg nga ma wax ñi koy melal ci njëlbeenu ay ati sayaram wax nañu ne seetlu nañu lu tàmbalee 1930 ba nii ñu ko mujj gise musta manki ziyaaratu rawdatu Cheikh al par ajjuma. ajjuma ju ne yor yor yor ajjuma ju ne na ko siyaare. Hmm. ànd naa ko ay yoon man sax mas koy bis di ko di ko laaj ne ko waaw ndax siyaare bi ñuy siyaare ndax sëñ bi dañ fi nekk. mu ne waaw nii ñu toog moom la toog yow nii nii muy toog yow la ñuy toog waxtu mu fal waxtu mu fi war a nekk am na ko ma ko mu ne waxtu mu fi war a fal nekk mu ne ma tekk soxna alxibis la fii nekk ba yor yor bu gaaw bu dul yeneen mu ngi fi. doonoon na ko mën a dimbale itam ndax danaa wax ne man sama sama commerce mooy dimbale bindee fii daana wax ne itam. sunu borom ndabam ci kaw suuf mooy bindeef yi kuy def ci ngay def ba taxoon na ñu ànd ak moom lu bari daañ di ko man di ko nga xam ne boo fi indaale woon ak nayit danga mujj génn ci ndax li ko waral mooy dalay wax ne la ñi fiy laaj bu sooboon suñ boroom da ngay bokk ci ñiy laaj kon nag bu la suñ borom boolee ci ñi ngay ñiy joxe da ngaa war a sant te mën koo joxe loolu tax na ba joxe bi méttiwutoon ci foofu na meloon amal njariñ ñëpp nag bàyyi xel am njariñ bokk na ci ak jub dëgg-dëgg mooy ni yàlla bëgg na mel ni mooy amal njëriñ ñi am na xadis buy wax ne nit ñi njabootu yàlla lañ ki gënal yàlla mooy ki gën ci njaboot gi te nag ku xamoon xam ne kon ñi gënal yàlla ci la bokk ndax ñi gënal ci njaboot ci la bokk njaboot gi nag bu ko waxee mooy jaami yàlla yi fa daan ñëw di ko diis ay soxla yi àdduna ak ay wala soxlay màdd wala soxlay maana léeg koo xam ne alal wajaado bi am amwaalihim wa anfusihim nga jiyaat ci sa alal ji la yàlla jox nga nangu koo dépensé ci yoonu yàlla ku ne xam ne ni amul leen lu mu ci yàlla rek ak ab yónnentam ak sëriñ Tuubaa mboolem koo xam ne ki mas ngaa jàq ñëw fi moom ba nga egsee wuññi na sa njàqare fa saasa ku jaaxle ñëw fi moom ba ñëw faj sag jaaxle ku amee bor ñëw gaaral ko ko mu fajal la mu fayal la ko képp koo xam ne kii tawat nga boo ñëwee mu saafaraal la te amee ordonnance boo ko ko tax a jóg. ordonnance am nay jamono am jamono day gis koo xam ne wenn këyit ordonnance la yor saa bu amee soxla la ñu ne ko dafa mabel ordonnance moom ko indi sëñ bi wane ñaata lay wax am nay jamono fifteen sax da ko daan dencaale bu ñu nee ko ñetti téeméer ak fanweer ak ñetti fifteen loolu lay génne indi jox la. waaw ku daal dimbalee la daal yërmande yàlla juy taxaw ci kaw suuf daal la. te doon doxee dox yonent doxinu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. mu ngi ko ne lool. jëpp yite yoo xam ne indi ko moom mu ngi yite àdduna ak yite yite wéradi ba saa si rek mu daal di tontu wala nga ñëw yow mi nga xam ne yaa nekk moom nga ñëw ko diw de soxla woon na soxla woon na ndimbal lool de nag ah toogal foofu ma ñëw la yónni daal daal dugg ci biir yëkkati li mu yëkkati ne doo ne ko jox ko ko naa la ci yow mi ko wax de ndax ku béy ku béy ci tool. sa tool sa barab sàngam am na ñax da nga ko da te man ci tool boobu lay bay li nit ñi ñëpp sàggane bàyyiwuma mag ak gone seex jiili moom fii la ma nekk képp ku ronu asamaaw mooy fonk ab dël bañ moom lum la wax faye ko bar moom lum la dig loolee la nar lii rek a tax mu néewi noon dégg naa ci kàllaamam mu ne musta leb musta leble musta gàddu bor musta laaj it nit dërëm lu waaye jëflante moom lu ne yaa ko jëf ci sa pastéef lu mu néew néew dana dana la ko nangul te dina la sant ba nga defee ne yow rek la yëg ku kuy kuy kuy ñëw fi moom ku ne war na la yitte joo xam ji ak yëg goo xam ne jàpp nga ne yow kenn képp la ko defal ba mu ba wala nit ñi ba nit ñi def kum xam ak ku kum xamul nag la ci yemale diggante tudd doom yeeg yooyu tam ku masaan am am tudd wax ko ko day ne la ciy sunna day mooy yor yor yor mooy sunna ñun ñoom ñu ko mën a doxale ñoo ko doxale waaye moom yor yor la daan tudd ku am xew mu jàpp ne nit kilifa di fekk benn waay bu ñàkk solo nga dem tuddal ko doomam jëlu ndaw solo jox ko li boobu lay baaxoo dafa aada yu rafet yi da ko doon fonk di ko dund te képp képp koo xam ne wax nañ ko koy dem ci néew da da da nañ ko waajal ma ñëw nañ ko waajal ma ñëw ba damay jullee ko ndax digg naa mu nettali ne dafa demoon Taïf te su fekk sëñ Fallu ñii sëñ Fallu sëñ Madu Musaa ne sëñ Fallu demal jiite mu ne ko dama dama dama ne ci dara de mu ne ko loo ci gàll ko ku ku ànd ci julli gi doo lakk suñu fàll ne ko nangu naa ko ak ak ak ak ci ko ci àndaat ak ko ci àndaat mu doo doo dañ fal dañ fal dañ fal doo nangoo nangoo jiite kon nag ci mu ne neen ci moom julli googu ci la bokkoon te taayif taayif lañ fekk sëñ bi Mustafaa kon nag noonu la taw feex ñëpp ñu ñëpp maan nañ ci julleem kon nag nu rafet njort nu war <laughs> di jaale ji nit ñi ñu faatu ku ñëw lu mu nuru nuru ku xeebu buñ ko waxee mu am dem ba ci armée la jullee ko ñaanal ko ba ci bi sëñ Abdoulaye jógee semaine bu njëkk boobu nga xam ne boobu kër gi nit mënu fee dugg ñëw nañ ko tàgge ko mel ne mbokk sëñ bi waaj bu ñu noppee ñëw wax ma ko ñëpp jaaxle nu muy génne nit ñëpp ngi di ko séenu mu bëgg a dem ci armée la. naa ne genn kilifa ko ñëw dimbali wan ko ne ko sëñ bi mënoo génn. mu door na nañ mu ñaanal ko daal di joxe ñaan waaye daal naroon dem jàppe boppam ba tëj rek Sëriñ Abdou Khadre tey mu dem mayam moom armée lay liggéey yàlla daaw rek ab jaamu faatu mu war ko ñaanal tiinu ko ngir yàlla ko foofu foofu la nekkoon moo taxit yàlla daf jullit ñëpp seeni xol yàlla ubbi ko daf def ci Sëriñ Abdou Khadre doo dajeeg nit ku lay koy tudd moo xam murit la moo xam leen la ndax jëf leen ak melokaan koo xam ne it foo ko séenee xam ne jullit la loolu nag ku ne xam na ne moo ëmb dundug Cheikh Abdou Khadre Mbacke ba tax ñëpp la doyoon jullit ñëpp ci àdduna bi ñëpp la def doxinu Serigne Abdou Khadre Mbacke doyoon kon loolu mooy résultant bi nga xam ne feeñ na ne moom ci siraatul mustaqim la jaaroon ba noppi daan ci woo nit ñi teyit nag moo noppal nit moom mooy li nga xam ne moo noppal nit sa Abdou Aziz Sy radiyallahu anhu xalifa Alaaji keroog ba sëñ Baxaar génne àdduna mu ñëw jaale si ko ak xasida gu rafet la fi indaale di ko martial bokk na ci la mu ko waxoon naj la xadimil Mustafa ab Adnani abshir faqad nilta rida rahmani c'est la yow doomi Sëriñ Tuubaa ji bégal ngërëmul yàlla am nga ko am nga ngërëmul sharia am nga ngërëmul sunna te la wallaahi la wax mooy dëgg te loolu lañ ñuy wax ñëpp wax ñi xam ñëpp te ñu baax loolu nag istixaama da ko ko may istiqaamatu moo ko may mooy tegu ci yoon loolu yàlla bëgg ci nit ñi ndam ba ndam jeex mooy tegu ci yoon. loolu mooy rafetal mooy wane mooy wane ki jaar ci listixaama waaye maa ngi jaar ci listixaama te ku la seen tegewoo ci yoon saw doxin ñaaw loolu du listixaama listixaama ki koy dund boo foo ko gisee rek dangay ngay xemem yàlla ndax tënku gi muy tënku ci yàlla tax yàlla day tabax cëri saahiram yépp ci li neex yàlla. foo ko séen mooy jaam bi yàlla gërëm moo tax sëñ Abdul Xaadir loola moo nekkoon ciw làmmiñam nekk ci cëram nekk ci léppam jaamu yàlla jooy na ko awraad ak ahzaab yi nga xam ne moom la saxoon di ko def guddeeg bëccëg jooy na ko xaside yi nga xam ne moom la daa jàng yow mi yan jooy na ko masaalix yi nga xam ne moom la daa dox diggam ak bindéef di leen ko jariñ jooy nañu njub jooy na ko ak tab jooy na ko ak bokk jooy na ko tawxiid jooy na ko lislaam jooy na ko bindéef yépp jooy nañu ko kon yow doomi cheikhul xadim ji nga dem tëdd nelaw ca jannatul oliya te béel fa na waa gaa yu baax yi di béeli foofu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 njub jooy na ko ak tab jooy na ko ak bokk jooy na ko tawxiid jooy na ko lislaam jooy na ko bindeef yépp jooy nañu ko kon yow doomi cheikhul xadim ji da nga dem tëdd nelaw ca jannatul oliya te béel fa na waa gaa yu baax yi di béeli foofu في الصلاة وتسليم على مقيم سنة